asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko wéetal moom mi nga xam ni moom mooy kenn ci nguuram di kenn ci ay melokaanam di kenn ci ay turam moo mi nga xam ni moo wéet ci lépp te amul bokkaale ci dara ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla dolli sotti xéewalam ak muccam ak jàmmam ak yépp ci moom ak njabootam ak mboolem saxaaba yi nga xam ni ñoom ñoo àndoon ak moom ak mboolem ñi nga xam ni fas yéene nañu jaar fi nga xam ni mooy yoon wu mu rëdd bàyyi fi mbokk yi defe naa ci quatre ba léegi ñu ngi toogoon doon xaar alhamdulillah ginnaaw bi ñu joxee farata wi nga xam ni moom moo doon julli tàkkusaan dellu ci bërëb bi insha allah fas yéene nag tàmbali li nga xam ni moo ñu fi tax a daje muy benn jàngat ak waxtaan ci benn point boo xam ne bu ama ama am solo la waaye bu ñëw it ci waxtoom la ci waxtu yi nga xam ni moom lañuy dund fi mu toll nii tomb boobu jëm ci li nga xamante ni moom mooy ndaw ñi ci euh, ci seen wàllu tom tomb bi nekk al inxiraatu al xuluqi inda sabab wala nga ne lada sabab al asbab al mazahir al ilaaj maanaa jàdd bi nga xam ni li ëpp ci ndaw yi ci wàllu jikko jàdd nañ ko ndax damay bañ a utiliser baatu wala wàcc yoon wi nga xam ni li ëpp ci ndaw ñi tey ci wàllu jikko wàcc nañu ko yoon wi lan moo waral loolu maa hiya al asbaab lu waral loolu yan njeexantal ak yan feeñ-feeñ la def ci société bi waaye buñ ko bëggoon faj itam naka lañ koy fajee mu nekk tomb bu am solo mbokk bi nga xam ni insha allah moo ñuy jàngatalal tomb bi mu nekk koo xam ne ganiyun ani ani taarif ku ñëpp xam la muy al oustaz Omar jàllo ñu xam ko ci yëngatu yu mel nii ci jottali kàddu yàlla ci leeralal jullit ñi ak jàngal leen kon dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla dëgëral ko làmmiñam yàlla sàmmal ko làmmiñam sàmmal ko xelam ba nga xam ni moom lañu ñu indil fii préparé ñu ko ngir bëgg ñu ci jariñ mu joxee ñu ko ni nga xam ni noonu la ko bëggee bu ko defee ñuy ñaan tamit ñun suñu bopp yal nañu yàlla may ay nopp yuy dégg te bu ñu déggee dégloo yal na ko taataan bu ñu ko taataanee yal nañ ko jëfee ba nga xam ne liñ fa am ni liñ fiy dégg muy lu tuuti lu bari ñu fi jógee yal na doon yóbbal ci suñu dund loo xam ni daf ñuy jariñ àddina ak kon jotaay bi yàgg na xëy na jotoon laajoon na ñuy def ay présentation ak yëpp mais dañuy bàyyi ba ca jeexantal ba ci kilifa yi nga xam ne ñoom ngeen gis ñu toog ci taabal bi léegi dañuy daal di rek jox mbokk mi kàddu gi te ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala ni ñu ko waxee mu daal di ñu jariñ insha allah ci li nga xam ni moom la ñu waajalee kon al aq tafaddal maskura bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala cant gi mu yellool di julli ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm xéewale mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bés penc di am mbégte bu baax a baax dajeek euh, suñuy mbokk gilit fii ci Medina pour war a waxtaanee dara lu aju ci suñu wàllu diine muy tomb boo xam ni tomb bu am solo la muy al inxiraaf al xuluqi inda sabab al asbab al madahir al ilaaj mooy déviation des jeunes ndaw ñi tey lan moo leen di dévier lan moo leen di sànq lan moo leen di réeral cause yi lan mooy cause yi mooy asbaab yi naka lay manifesté woo ci société bi mais aussi solution bi wala remède bi lan la kon loolu mooy ci gàttal li nga xam ni moom mooy tomb waxtaan bi di nuyu di gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo ko organisé di ñaan borom bi fay leen bépp yiw bi fi génnee borom bi subhanahu wa taala boole leen di nuyu waa quartier bi di nuyu borom xam-xam yi ak suñuy mag suñuy papa ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo dagg seen yitte pour ñëw bokk ak ñun li nga xam ne moom mooy jotaay bi ñu ñaan borom bi mu bindal leen ci ay yiw mbokk yi ni ñu ko xamee ñetti tomb moom moo tënk waxtaan bi mooy déviation boobu jeng jeng ci wàllu jikko cause yi lan la lan mooy cause yi ñu jéem ko étudier buñ paree ci cause yi jéem a étudier lan mooy mazahir yi ni muy feeñee ni muy manifesté woo dooro indi li nga xam ni moom mooy solution yi naka la kon lu ko jiitu daañu wax ni jeunesse ak ndaw moom mooy âge bi nga xam ni mooy l'âge door de l'individu ni ko benn xalaatkat waxee nee na jeune boo jël wala jeunesse c'est l'âge door moom mooy âge bi nga xam ne dafa mel ni or ci doomu aadama bi nit ki su ko àggagul day tële du mën lu bari su ko rombee day tële lu bari da koy dootu ko mën waaye bu tolloo ci âge boobu lu jàkkaarlook moom ci wàllu ndawam ak fugu jeunesse mën na ko dégg moo xam idéologie idéologie la moo xam force la boo xam ne bu palpable bu buñ mën a làmb daj ko la wala leneen lu mel ni moom parce que jeunesse dafa am force am rigueur am aussi li nga xam ne moom mooy xel mu mu mu sawar moo xam ni day day day day liggéey di nàcc di xalaat loolu moo tax buñ xoolee boroom xam-xam yi mag yëpp ci àdduna yiñ xam ñu leen di joxoñ bàyyiwuñ ba màggat door a feeñ nekkuñu ay ndaw yu ndaw a ndaw door a feeñ waaye ten digg jeunesse ci lañ feeñee muy ñi créé ay mbir ci àdduna ñi mën ko joxoñ moo xam ñi créé oto moo xam ñi créé téléphone moo xam ñu créer avion ak yenn xam-xam yu mag yëpp ñi ko développé génnee ko ci àdduna ñu xam leen loola bi muy am ci ñoom ci seen digg ndaw la digg ndaw googu yàlla jox ko importance yàlla yoon yónniwul yonant bu màggat mboolem yonant yi yàlla yónni ci seenu digg ndaw la leen yónni loolu moo tax alquran di jëfandikoo falamma balaga ashuddahu yàlla buy wax yonente yi day wax bi mu demee ba toll ci digg dooleem loolu mooy ba mu demee ba nekk ci digg ndawam ci la ko yàlla tànn yónni ko parce que mission mission wu yonant màggat nu ko doxal xale bu ndaw bu ñoragul boo xam ne xel mi ñoragul mënu ko doxal il faut koo xam ne nekk na ci digg ndawam am cawarte yaram cawarte wax cawarte mën a jàmmaarloo ay nit ci wax ak ci xalaat ci kooku la ko yàllay def loolu moo tax yàlla yónniwul yonant bu màggat yónniwul yonant boo xam ne aussi ba mu la yónni majeurago da ngay nekk sa digg ndaw mu door laa yónni boo xoolee lislaam ñi ko taxawal ba mu taxaw dëgg-dëgg ay ndaw lañ suñ lay wax seeni tur nga jàpp ne ay paa yu màggat lañ buñ lay wax Xaalid ibnul Walid ne la moo ubbi Irak moo daaneel Perse yi daaneel romain yi ubbi l'islam àggale ko ba ca ndox ma nga jàpp ne Xaalid moomu amaana màggat la woon alors que passé wul vingt cinq ans jamono yooyu buñ lay wax Muaz ibn Jabal moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jël yónni ko Yemen pour mu dem dugal fa l'islam da ngay jàpp ne peut être booba mi ngi ci ay 40 ans wala 50 ans alors que booba Muaz mi ngi ci 22 ans buñ lay wax ni Musab ibn Umayr moom la yonent bi alayhi salatu salaam jël njëkk ko yónni mu dem Medine préparé terrain bi laata yonent bi war a gàddaay parce que xamoon na ni yoon dina ñëw yonent bi alayhi salatu salaam xamoon na ne yoon dina ñëw moom mu gàddaay bés ak saxaaba yi dem rawale seen diine ak seen bakkan nga xam ne moom mooy Madina waaye ñu waajal terrain bi Musab ibn Umayr Mus'ab moomu 18 ans la amoon kon ñooñu bu ñuy tudd seen mbir nga jàpp ne ah, dañoo dem ba magal dañuy wax saxaaba yi fulaan mais jamono yi ñuy yi ñuy def xew-xew yooyu seen digg ndaw ci lan toll seen digg ndaw ci la toll loolu moo tax euh, yàlla subhanahu wa taala ci boppam dafa woo dafa yittewoo ak ndaw yàlla nettali ñu ci suratul kaf ay waxambaane yoo xam ne dañoo nekk ci ab dëkk dem ba gis dëgg bu ko faa dund xejatuñ fa ñu gis ne liñ gëm ku ko fësal fii buur bi fi nekk dina la faat ñu génn pour rawale seen ngëm yàlla rawale leen euh, ba nettali seen histoire ci suratul kaf dem ca àll ba nelaw fa ñetti téeméeri at yu teg juróom-ñeenti at yàlla subhaanahu wa taala wax ni dëkk biñ nekkoon dund gu neex a fa am dara manqué wu fa amul luñ fa doon tiit amul luñ fa doon ragal li tax ñu bàyyi neexaayu dund ga bàyyi yu bakk na ya fa nekk kenn menacé wu leen kenn defu leen dara loolu lépp ñu daw bàyyi ko fa parce que liñ doon dund bu ñu ko fa fësaloon ñu faat te gëmoon nañ ne amuñu doole ak euh, euh, njàmbaaru ak fituk jéem ko mën a jàllale ca jamono jooja ñoom li leen yitteeloon mooy nañ génn ñun li ñuy dund am fuñ dem mën ko faa dund ba yàlla faat ñu yàlla di leen nettali muy ashaabul kaf yàlla nettali ci wa samaa zaatil buruuj muy suratul buruuj benn ndaw benn xale boo xam ni ci sababam dafa sóobee daanaka li nga xam ne moom mooy ab communauté borom sant la wax ni Euh, ni ko imam muslim génnee xale bu ndaw la euh, nekk ci jamono joo xam ne buur boo xam ni ku weddi yàlla la woon ca xeet yi ñu jiitu woon lam doon def mooy moom buur bi ab njabarkat boo xam ni moo nekk ci wetam doon bras droit di ko gisaaneel mu dem ba jamono njabarkat bi màgget ne buur bi man màgget naa dama bëggoon nga organiser benn concours boo xam ni concours bi dañ ciy tànn ku gën a muus ci dëkk bi kan la ci xale yi kooku ñu jàngal ko ma jàngal ko xam-xam bi pour su ma fi jógee mu wutu xale bi lan la def euh, bi ñu organisé concours bi def ay mbir yu bari ñu jàngee ci ne xale bi dëkk bi moo fi gën a muus ci dëkk bi moo fi gën a muus kon war naa mën a wuutu war naa mën a remplacer ki nga xam ne mooy njabarkat bi effectivement loolu lañ def euh, mu ñu jàpp ne xale bi moo ko war a mën a wuutu ñu indi ko teg ci wetam muy jàngal xale bi njabar di ko jàngal njabar di ko jàngal njabar di ko jàngal njabar ba ay jamono xale bi dëkkul ci biir dëkk bi ci biti dëkk bi la dëkk waaye dafa gis ne su jóge woon seen dëkk di ñëw si dëkk bi ci buur bi nekk pour jàng si ci njabarkat bi xam-xam pour su jógee mu wuti ko dafay romb benn néeg boo xam ne mi ngi ci yoon wi ci àll bi benn waay moo fa nekk di jaamu yàlla ci diine yonent yàlla Muusa xale bi saa bu xëyee romb fa dem benn bis mu ne foog xool bi mu ko jàddee xool waa ji jàngal ko li nekk ci tawra jàngal ko li nekk ci téere yonent yàlla Muusa wax ko ni buur boobu di woote woo yàlla du yàlla xamal ko kan mooy yàlla nekk ko mooy borom asamaan ak suuf sàkk la sàkk ñi fi jiitu woon amal géej gi amal gàncax amal mala yi mbooleem li fi nekk moom mooy ki ko bind loolu commencé xalaat loo xale bi ci xelam xale bi continué dem bu ñëwee jabarkat bi ne ko léegi da nga naaje xale bi di lay ne ko ay yitte ñëw may téye kër ga léegi ba tax parce que responsabilité bi dafa commencé yokk moo tax may naajee ñëw xale bi su ñëwee ci njabarkat bi jàng njabar bi ñibbiwaat ngoon jaaraat ci waaja jàng fa xam-xam door a ñibbi bu demee seen kër ñu ne ko yow léegi dangaa ngaa commencé guddee mu ne parce que xam-xam bi may jàng moo commencé xóot moo tax may may guddee ñëw te effectivement wax na dëgg parce que day jàng ci njabarkat bi wàcc jàng fële lu gën a xóot li muy jàng ci njabarkat bi noonu la ko jàppoo ba benn bis muy xëy di dem fekk benn rabu àll bu tëdd ci yoon bi yor gémmiñ gu yaatu nit ñi kenn ñemewul jàll ay bëñ yu bëree bëñ nit ñi ku jub yoon wi daal di dëpp xale bi ñëw fekk mbooloo mu bari mu taxaw ci yoon bi mu xool xool amul lu muy def mu for benn xeer bu ndaw benn xeer bu ndaw daa di ne yow yàlla dëgg bi xaw ma foo nekk de waaye bu dee yaa may dégg su dee jabarkat bi moo nekk ci dëgg su ma jëlee xeer bi sànni ko ci rabu àll bi bu ko dara su dee waa ji nekk ci diine Moussa nekk ci ahlul boo nekk dëgg te li may wax dëgg la maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa yàlla dëgg xeer wi su ma ko sàndee li muy ndaw ndaw bu dalee rabu àll gi na faatu mu jël xeer bi sànni ko rabu àll gi rabu àll gi xeer gi daal di koy dal mu daal di jaaxaan daal di faatu xale bi xam ne mbir xew na mooy ndeke njabarkat bi lim koy jàngal baaxut waaye kee lam koy jàngal mooy dëgg mooy diine ji fi nekkoon te beneen diine ñëwaatugul ci ginnaawam diine jooju mooy dëgg moom la war a topp ci jamono yooya xale bi <clears throat> njabarkat bi mu nekk ak noonu ci njabarkat bi nekk ak noonu ci njabarkat bi dem ba jamono ñu dem ba jamono njabarkat bi daal di faatu bi njabarkat bi faatoo mu nekk ak buur bi ci pale bi mu nekk ak buur bi ci bale bi euh, am lu daanu ci buur bi nit ñi daal di yuuxu turu buur bi daal di koy woo xale bi daal di woo turu yàlla ñëpp si gi daal di koy xool buur bi ne ko ndax dafay am beneen yàlla bu dul man xale bi ne ko am na fi beneen yàlla bu dul yow te kooku sax moo yàlla ñu jàpp xale bi mbugal ko teg ko coono yi nekk buur bi ne ko yow lii waroo ko xam dafa am ku la ko xamal te foog nga wax ñu ko kan la bi biñ ko sonalee ba sonal ko xale bi daa di wax fi waa ji nekk buur bi daa di koy jëli daa di koy rey ne ko nag gis nga sa waa ji bu fekkoon ne yàllaam bi muy woote dëgg la dina ko protéger rey naa ko te protéger wu ko yow yaa ci wala ma rey la xale bi ne ko du ma dellu ginnaaw alxaafis ibnu kasir ci tafsiram mu ni xale bi dañ ko jël dugal ko ci gaal yóbbu ko ba ci géej gi pour jëm ko dëpp faat ko takk ci tànk bi xeer bu diis pour mu diig biñ demee ci géej gi gaal gi këpp ñoom ñu diig xale bi gaal bi wëlbatiku moom mu yéeg ci kaw gaal bi dawal boppam ba ci tefes gi teer xale bi wàcc dox ba dugg ci pale bi buur bi ne ko yow lu xew ak foo jaar ak ñi ma la booleem anañu mu ne ko borom bi ma la wax te muy yàlla dëgg bi ànd naa ak ñoom ba te moom mooy borom géej gi di borom gaal gi di borom suuf si muccal na ma ci ñoom moom laa wax ne ko allahumma akfinihim bi ma shi'ta yàlla yàlla nag ma musal ñi doyal ma ci ñoom ci ni mu la soobee yàlla aar ma ci ñoom ñaan boobu xam ngeen ne yonente bi alayhi salatu wasallam feddali na ko mu doon ñaan boo xam ne jullit bu amee lu ko tiital jàqal ko ci ay nit mën na ko ñaan ñaan boobu mi ngi ci al azkar bu al imaamu mu ngi ci al azkar bu al bulqini borom xisnul muslim jël na ko tamit indi ko ci xisnul muslim muy allahuma akfinihim bi Euh, mu daal di woo ay gardam ne leen montagne bi gën a kawe ci dëkk bi dem leen yéegal ko ba foofu ngeen takk kook ay xeer ci tànk yi ngeen bumax ko mu daal gaa ñi bi ñu yéeg ak moom al imaamul baga yu mu ne dafa mel ni ay malaaka ñëw fël seen tànk yi gaa yi di yéeg ci montagne bi ñoom ñëpp daanu te xale bi daanuwul wàccaat dox ñëw ba dugg ci pale bi buur bi tiit taxaw ne ko yow li xew mu ne ko ki ma la waxoon sama boroom di sa boroom moom la moom moom jaww ji moom jéeri moom géej gi moom gàncax yeeg rabu àll yi moom laa wax na ma musal ci sa gaa yi musal na ma ci ñoom bu du jaaxle mu ne ko xam naa ne mënoo maa rey ki ma mën a rey mooy sama borom bi soo ma bëggee rey lenn rek ngay def mooy da dajale waa dëkk bi yëpp ñu dem ci penc mi buñ demee ci penc mi nga defar ak flèche boo xam ni boo ko defaree yow yaa koy tiiree da ngay jàkkaarloog man waaye balaa ngay bàyyi flèche bi da ngay wax bismillah wa bi rabbil ghulam da ak maa ngi tàmbalee ci yàlla bi nga xam ne mooy boroom xale bi soo ko waxee su ma feles gi dalee dinaa faatu buur bi def loolu yomb na xam nga nguur ñoom ak conserver seen nguur léeg-léeg day nëxal seen xel ba duñ gis leneen moom pour moom bu defee loolu rek nguuram moom du menacé wu mu dem jël xale bi yóbbu ko ci bayaal bi ñu takk xale bi ci ab bant bu ñu samp buur bi jël taxaw fu kawe tiim ko taawi feles bi daal di wax bismillah wa bi rabbil gulaam feles bi dal bi xale gi daanu fi saasi waa dëkk bi yëpp sëgg ne aman bi rabbil gulaam daa di ne ñun ñëpp gëm nañ yàllay xale bi gëm nañ gëm nañ yàllay xale bi daa di ne buur bi ndeke yow doo dara def nga lu nekk mënoo ko rey boo tuddutoon turu yàllaam bi doo ko rey kon yàllaam ji mooy yàlla buur bi nag xam ne xale bi da koo daaneel ci ab piège mu xam ne am na lu xew mu ne militaire yi gardam yi dem leen ci àll bi ngeen taxan matt pendant une semaine ngeen indi ko gars yi dem taxa taxan matt pendant une semaine indi mu ne leen na ngeen ma gasal pax moo xam ne une semaine ngeen koy gas gaa ñu gas paxu une semaine matt une semaine bu ta buñ taxan ak paxu une semaine buñ gas mu ne dajale leen waa dëkk bi yëpp gaa ñi dajale waa dëkk bi mu ne matt mi ngeen taxanoon def leen ko ci pax mi gaa ñi def ko ci pax mi mu ne taal leen ko gaa ñi taal ko mu nekk sébb bu buy tàkk di jëf jëfi ñu rangal waa dëkk bi benn par benn buur bi ne leen soit ngeen gëm ne maa yàlla wala ngeen nangu ne yàlla xale bee yàlla su dee maa yàlla mosal nga leen parce que maa ci borom safara su dee borom yàlla borom xale bee yàlla na leen musal ci safara si. muy tàbbal waa dëkk bi ci pax mi di leen lakk di leen lakk leen lakk ba mu jeex tàkk ba mu des benn jigéen buy nàmpal doomam jigéen ji bi mu ñëwee ba tiim pax mi tàngooru safara si mu arrière dellu ginnaaw bëgg a bëgg a fekki buur bi ci diineem yàlla wax loo liir bi liir bi ne ko safara si bu yàlla bi mu lay xaare moo gën a tàng bi boo ci daanoo yàlla seddal ko comme ni mu ko seddalee ci gaa yi jiitu yaa ngi daal di bàyyeeku ak xale bi ñu daanu ci safara si daal di tàkk yàlla wàccee alquran daal di ñettali xista boobu daal di wasamaai zaati lburuj wal yawmi almawud wa shahidin wa mashhud qutila ashaabul uxdud yàlla mu ne rëbb nañ borom pax ya buur bi ak nit ya nga xam ne ñoo gasoon pax ya lañ fa dugal mooy ay nit ñi gëm wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid mbugal luñ leen tàbbal leen ci pax yi lu dul ne ñoom dañoo wax ni ñun yàlla leen jëm loolu moo tax ñu tàbbal leen ci pax yi leen loolu ab xale moo rôle boobu ab xale moom moo ko joué boo toppoon alquran ci xista yu mel noonu nga jël xistatu yonent yàlla yusuf alayhi salaam jël ismail jël ishaq yu demee noonu nga nga koy jàngat gis rol bi ay jeune joué ci tasaare diine yàlla ak aar ko ak alquran place bi mu leen jox du xaaj bu jeex boo jàngoon xayaatu saxaaba nga jàngat ko kenn ku ci nekk nga gis jalooro yam def te ba mu koy def ndaw la kon loolu du xaaj bu jeex waaye loolu mooy wax gënul dugg ci tam bi ñuy wax loolu mi gën a dugg ci al islam wa sabab muy islam et la jeunesse foofu lay gën a dugg waaye ñaari tam yi am nañ ak jokkaloo kon loolu moom mooy muqaddima bi ñu doon def pour wane ni jeunesse dafa am solo ci société dafa am solo ci diine tey doomu aadama yi ci seen wàllu adduna lépp lu ñuy organiser jeune lañ ci gën a soxla bu ñuy def recrutement militaire ay jeune lañ soxla suñuy jàllalee publicité ga dañ naan entre dix huit ans ba vingt cinq ans ku ko passé soxla wuñ la parce que kooku mu ngi ci digg dooleem bu ñu def élection miss gisagu leen élection miss boo xam ni dañ naan cinquante ans ba soixante dix ans la gisagu leen ko gisagu leen élection miss boo xam dañ naan six ans la ba treize ans gisagu leen ko fan la parce que koo kii majeur agul kële àdduna soxlaatu ko boo ko organisé kenn du ko seetaan parce que tollul fu ñu koy seetaanee soxla wuñ ko waaye kin soxla mooy ki nekk ci digg ndaw moo tax dañ lay wax ne 18 ans ba 25 ans parce que loolu mooy li attiré nit ñi loolu mooy nit ki ñu soxla ci àdduna mooy ci tollu foofu mboolem société yi recruté usines yi ak société yi aduna yi recruté ci wàllu liggéey ay jeunes lañ soxla jeune moo fay euh, déposé ñu jël ko soxlawuñ mag yëpp soxlawuñ koo xam ne aussi tollagoo ci âge boobu noonu kon jeunesse mooy âge bi gën a am euh, solo ci doomu aadama nit ku nekk aussi bi mu nekkee jeune ci lay réaliser ëllëgam moo xam ci wàllu allaaxira wala ci wàllu aduna ci wàllu jeunesse am ci lay réaliser am këram ci lay réaliser takk soxna ci lay amee njaboot ci lay réaliser euh, lu mu yoree boppam waaye ci lay defaree mbiru boppam jaamu yàllaam gu ko mën a jëriñ alaxira bi mu nekkee jeune ci la ko mën a réaliser parce que màggat su ñëwee tëlën te ba muy nekk ndaw àggagul fu mu koy defee kon ci âge boobu ci la mën a jaamoo yàlla jaamu yàlla gu ko jëriñ ci aduna jëriñ ko ci alaxira moo tax âge boobu soo ko fooyee sa aduna yàq sa aduna ñi ko fooyee ñi fooyee seen jeunesse yëpp ñi ngi taxawal waaye ñi fooyee seen jeunesse yëpp ci côté diine ci anam googu it boo leen gisee yërëm leen loolu moo tax âge boobu mooy âge biy defar doomu aadama bu fekkee bëgg na cee defaru waaye âge boobu nit ki su ko sàgganee aussi ci lay yàqoo moo tax lu mat a bàyyi xel la euh, ci sunna it yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox na lool jeune boo xam ni caaxaaneewul ak ndawam waaye daf koo passé ci jaamu yàlla daf koo passé ci tabax avenir am daf koo passé ci def lu baax ak bàyyi lu bon ci hadis abu hurayra bi siiw yonente bi alayhi salaatu wasalaam di nettali juróom-ñaar yàlla di keral yowmal qiyaam bés ba nga xam ne ker du am lu dul keram muy xadis bu xaw a gudd yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne sabaatun yuzilluhum allahu yowma la zilla illa zilluh juróom-ñaar yi ker gu am keroog bi jaam yëpp taxawee ci péncam yàlla ci kanamam yàlla war leen xisaab ñu war a teg balance yi benn ker du fa am lu dul kerug yàlla kerug yàlla googu borom xam-xam yi ñii ne arsh la ñuy wax leneen waaye ay détails yu ñëw ñu leeral ker la gan ker la euh, xadis ñëw wax ne arsh la borom xam-xam yi dañ ko jam kon liñ ci am mooy am na kerug yàlla goo xam ni yàllaa ci keral ay jaamam ker gi ni mu mel lan la koy keralee borom bee ko xam waaye dina keral ay yit nit ñooñu muy keral juróom-ñaari catégorie lañ catégorie boobu ku ci bokk mën ngaa bokk ci ñay am ker ga yowmal qiyaam yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne al imaamul azim mooy jiit njiit loo xam ne dafa correct dirigeant bu jub dirigeant bu correct moo xam chef de famille moo xam chef de quartier la moo xam chef d'entreprise la moo xam maire la moo xam préfet la moo xam sous-préfet la moo xam imaamu jàkka la moo xam njiitu réew képp koo xam ne da ngaa jiite mbooloo ci dara donte GIE la nga nekk maandu teg ko ci yoon jaarale ko yoon kooku mu alimaamul adil mooy njiit loo xam ne njiit lu maandu la ngir du jub du jalgati du farfarloo du jeng du matt di ëf du rambaaj du jaxase du yàq ay diggante waaye dafa maandu jub lépp ci yoon la koy teg ni ko yàlla bëggee ni ko yoon di bëggee ni ko ko santee te mu dëppoog yoon ci la koy defee kooku moo al imaamul adil donte directeur ñaareel bi mu ni wa shaabu nasha fi ibadatillah te loolu mooy li jafe mooy jeune boo xam ni dafa yar boppam jeunesse am yëpp mu passé ko ci màgg ci jaamu yàlla ba màgget passé wul jeunesse am ci àdduna dem ba àdduna soxlaatu ko benn société soxlaatu ko jël ndax âge bi mu am mënta defi militaire mënta defi police mënta dawali oto mënta def dara mu door a ñëw wut kaala kurus ak benn ba bokk sa jaadaam bu muy demee jàkk ginnaaw bi ko àdduna jéppee waaye fi ko àdduna soxlawee ñëpp riir wuti ko yàlla soxla ko àdduna soxla ko ci ne wuti yàlla subhaanahu moo tax mu ne sabun nasha fi ibadatillah jeune boo xam ni dafa màgg ci di jaamu yàlla ci loolu la màgg ba màggat ci mu teg ci mu ne wa rajulun qalbuhu muallaqun fi l masajid waajoo xam ni xolam jàkkaa fa nekk bu jullee jàkka génn mu ngi xaaraat heure julli jàkka jotaat mu demaat jàkk kooku julleem yépp jàkka la koy defee loolu la bëgg wax mu ne wa rajulaani tahabba fillah ñaar ñu soppante bëggante te yàlla rek tax loolu dafa jafe doonu lu yomb de li gën a bëri ci doomu aadama yi seen soppanteeg bëggante intérêt moo ko lal nit ki da lay amal njëriñ nga amal ko njëriñ nga jàpp ko xarit ci loolu waaye jàpp ko xarit ngir na yéen a bokk diine ci yéen a bokk pas yéen bokk ngëm-ngëm yéen a bokk lu ngeen di dund yàlla kese moo leen boole mu ne ñaar ñooñu moo tax muy wax rajulaani tahabba fillah ijtamaa alayhi yàlla moo leen di boole wa tafarraqa alayhi moo leen di tàqale mu ne wa rajulun waajoo xam ni daatu imraatun zaatu mansabin wa jamal comme li daloon yonent yàlla Yuusuf la ndaw su am daraja am taar nga xam ne ñépp a ko soxla moom mu bàyyi leen fa ñëw soxla la yow wut si la pour ngeen mooy yàlla nga éviter ko bàyyi ko te yàlla rek tax nee na kooku yi dana bokk ci ñi yàlla y keral te bés booba fa qaala inni axaafullah mu ne ko man damaa ragal yàlla mu ne wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha hatta la taalama shimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu waajoo xam ni dafa génnee sarax joxe ko ci yoonu yàlla te bi mu koy joxe loxo càmmoñ bi sax xamul ne moom saraxe na ci loxo ndeyjoor bi loolu mooy sarax boo xam ni yàlla rek a tax yàlla rek a ko yëkkati sarax bi saraxoo ko ngir dañ la koo digal saraxoo ko ngir da ngaa yaakaar ne boo ko saraxee visa bi génn wala ñu demee la poste wala nga admis examen saraxoo ko ngir yaakaar ne boo ko saraxee balaa yeeg musiba yi ñu wax ni boo génnee sarax bi du la dal looloo tax ngay saraxe waaye da nga koo saraxe yàlla rek tax da nga koo saraxe jublu ci saraxe gi jaamu yàlla loolu rek moo la yëkkati waaye melul comme saraxi dakaar yi saraxi dakaar yi nga xam ni balaa ngay saraxe dangay ngay wëndeel ci bopp bi juróom-ñaari yoon wala dangay ngay taxaw ci bopp koñ balaa ngay mën a sarax da romb yëpp il faut dem ba ci selebe yoon ba nga koy door mën a saraxe wala balaa ngay sarax da ngay dàq ku sol yére bu weex nga door ko koo jox mboole mu bëri di la romb doo saraxe yaa ngi xool ndax am na ku sol yére bu weex buy ñëw wala bala ngaa saraxe dañ laa wax jigéen joo xam ne dafa boot doom nga taxaw ci arrêt bi ku ñëw romb la nga téye sarax bi ku ñëw romb la nga téye sarax bi ba xaar jigéen ju boot doom nga door ko ko jox sarax boobu yàlla taxul saraxu njabar la doo ci am yàlla doo ci am li nga xam ne moom mooy tiyaaba doo ci am ngërmaane borom bi subhanahu wa taala bal saraxu mooy yàlla la sarax googu mooy yàlla la te googu nit ci xam façon sarax googu waru ko nangu loolu nangu genre sarax yooyu parce que lekk-lekk sarax yooyu ki koy nangu dañ koy ci sacrifier moom ci boppam bu ko nangoo lekk ko dañ koy ci sacrifier te léeg-léeg ñu digal la sarax yoo xam ne sarax yu ñàkk fulla la yu ñàkk fayda nit ki ñàkk fulla ak fayda di ko nangu juróom-ñaari puso demal saraxa ko nga taxaw ñu lay sarax juróom-ñaari puso nga koy jël juróom-ñaari puso loo koy doyee ci sarax jël ko yóbbu sa kër mu lay jam di jam sa njaboot wala juróom-ñaari sondel wala juróom-ñaari doomu guro ban xiif moo la war a mën a jàpp ba ñu lay sarax juróom-ñaari doomu guro nga koy jël loolu lan la ko nit di doyee lan la ko doomu adama di doyee te yooyu mooy ñuy saraxe tey saraxat di saraxe yëpp moom la ñuy saraxe loolu lu mot a moytu la sarax googu taxul ñuy wax ci lislaam mu ne wa rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu waa joo xam ne dafa toogu wéet xalam dem ci yàlla rongañam tuuru rongañam tuuru kooku ñaari mbir ñëw na ci mooy kooku yàlla da koy keral ci bés boobu waaye beneen riwaaya ñëw na wax ni bët bu jooy ndax ragal yàlla rek a tax mu jooy xalaat yàlla rongoñ boobu tuuru ci yaramam yaram boobu safara du ko lakk loolu moo tax euh, euh, moo tax nit ki booy jooy fexe ba jooy gi na yàlla rek tax te jooy gi jooy giñ bëgg ci lislaam mooy wa rajulun xalaa tafaadat ay naaw mooy nga wéet waaye waxuñu bi nga nekkee ci biir sàpp yi julli wala fi gaa yi jàngee alquran wala fa ñuy defee conférence bi waxuñu façon jooy googu jooy gi nga xam ne yow dong na yaa wéet kenn nekku fa kenn gisul kenn yëgul na yaa ngi jooy ku dul sa borom jooy googu moo tax ñuy wax bu ma ta bàyyi xel la jooy gi lislaam nangu di ci fay mooy jooy goo xam ne yow yaa wéet jooy waaye jooyoo ci biir mbooloo bu ma ta bàyyi xel la dangaa wéet jooy waxuñu nga ne ci biir di jooy bu fekkee inxiraaf gi jeunes yi dund ñaari façon la mooy inxiraafun fikri ak inxiraafun suluki xuluqi mooy jéng ci wàllu xalaatin jéng ci wàllu idéologie jéng ci wàllu ngëm-ngëm wàllu pas-pas benn mooy jëng ci wàllu jikko ak ci wàllu comportement ak ci wàllu melokaan boobu mooy ñaareelu xaaj bi bu fekkee jéng ci wàllu xalaatin wàllu idéologie ak wàllu pas-pas ak wàllu ngëm boobu jàng bu doy waar la parce que boobu dafay màbb diine dafay màbb diine bokk na ci comme nit ki nga xam ni idéologie bi mu gëm ci wàllu diine du l'islam gëmul ne l'islam mooy solution pour solutionner problème yi ñu dund ci wàllu aduna waaye jàpp na ne loolu li ko mën a solutionner mooy capitalisme wala socialisme wala libéralisme wala communisme ak yi mel ni ñoom jàpp na ne yooyu ñooy solution pour doxal aduna kooku dafa jeng ci wàllu xalaat xalaatin dafa jeng ci wàllu idéologie dafa jeng ci wàllu appartenance li nga xam ne moom mooy idéologie wala mu jàpp ni wàllu nationalisme moom mooy solution kooku it dafa jeng euh, parce que yooyu yëpp ay xalaatiinu doomu aadama la te adduna gi yàlla sàkk xalaatu yàlla moo koy doxal waaye du xalaatu doomu aadama te moo tax mboolem idéologie yooyu bu ci nekk essayé nañ ko sottiwul muy capitalisme xaw na nañoo rey socialisme communisme benn doxu ci ay problème yi neen la euh, li ñuy indi moom mooy injustice sociale injustice économique ak yu bëree bëri euh, doy dal ay nit ñenn ñoo fi nekk aasimoo alal ji di ci dund ñenn ñi fas yéene pauvre ba ilaa yawmi diin loolu mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy jàngale loolu moo tax ñu ay idéologie yoo xam ni yu yu dal xel la wala yoo xam ne mën nañ doxal àdduna loolu moo tax léeg-léeg loolu li koy indi mooy ëppal ci wàllu xalaat yi wala jéng ci wàllu xalaat yi léeg-léeg teeŋal ak taral ci wàllu diine ak ëppal ak yéene gu baax te teguwul ci xam-xam moo ci poussé doomu aadama bu ngeen fàttalikoo euh, xadis bi alimaamul buxaari génnee jëlee ko ci anas ibnu malik muy xadisu nee na ñetti gaa yi jaa salaasatu raxdin raxdin ila buyuti azwaaji nabi sallallahu alayhi wa sallam ñetti gaa yi dañoo ñëw ci kër yonent bi ci kër ay soxnaam néegu soxnaam yi yasaluuna an ibaadati nabi sallallahu alayhi wa sallam di laaj yonent bi naka lay jaamoo yàlla falamma uxbiru biñ leen xibaaree yonent bi nii lay def nii nii la mel nii la nekkee njaboot gi lii nii lay def nii lay def ka annahum taqalluha ñu mel ni dañ kaa xeet dañ kaa xeet fa qaalu ñu ne wa ayna nahnu min annabi sallallahu alayhi wasallam ñu ne xoolal yonent bi ak ñun par rapport ak ñun yonent bi dafa mel ni ñun ñoo ko raw ci ñoo ko gën a bëy lu ñuy def ñoo ko ñoo ko sut ci ñu ñuy jaamoo yàlla euh, te kenn ki ne qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma te dafa ba pare lii lay def ci yàlla jéggal na ko bàkkaaram yi jiite yu mujj kon ñun nag bi loolu amee kenn ki ne man de fa qaala ahadum amma ana fa inni usalli layla abadan kenn ki ne man guddi yépp damay julli te du ma sëlmat ba fajar wa qaala al axar ne ana asumu dahr bés bu nekk damay woor te du ma dox wala aftur wa qaala al axar ana atasilu nisa fala atazawaju abadan ne man sax li nit gën soxla muy am soxna ba dama koy daw parce que maa yéene takk soxna ba faw bànneex boobu dama koy araamal sam bopp yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee ñu ne ko am nañu ñett ñu fi ñëw de jiw ak jiw ak jiw ñoo wax nangam ak nangam ak nangam lii lañ laaj ñu tontu leen ñu wax lii fa qaala yonente bi alayhi salatu salaam ne leen antum alladina qultum kaza wa kaza yéen yéen a wax nangam ak nangam gaa ñi ne ko waaw mu ne amma wallahi inni la axshaakum allah wa atqaakum maa leen gën a ragal yàlla giñ naa ko ci yàlla lakinni asumu wa uftir man damay woor di dog wa usalli wa arqudu damay damay julli di nelaw wa atazawaju nisa te damay takk ay soxna fa man raxiba an sunnati képp ku wàcc sama yoon doyadal sama sunna bàyyi ko fa laysa minni ko bokkul ci man gis nga ñooñu bu leen yonent bi bàyyi woon yoon bi ñu naroon a jël mooy ëppal ci wàllu diine bu leen naroon a yóbbee ñu juum jeng ci wàllu diine ba pare jàpp ne liñ nekk diine te loolu ñaata lay dal tey ci ay jeunes am benn idéologie teg ko ci diine jàpp ne diine la fekk yow wàcc nga diine gi réer nga ba pare jàpp ne li nga nekk diine la yonente bi alayhi teel leen a corrigé ba pare wane na li nekk ak jeng la te loolu du sunnaam du yoonam du am du lislaam loolu lu mat a bàyyi xel la loolu moo tax euh, lu bëree bëri ci euh, doomu adama yi léeg-léeg suñ bëggee yàq diine ji suñ ko bëggee daaneel ci jeunes yi la ñuy jaar ci jeunes yi ci ñoom la ñuy jaar parce que jeunes yi boo jaaree ci ñoom mbooloo ngay am te léegi adduna bi li gën a gaaw pour nga am légitimité mooy nga am groupe bu jeune bu nekk ak yow même boo nekkee caaxaankat nit ñi dañ lay respecté parce que dañ naan am na mbooloo rawatina bu fekkee ay jeunes ñoo la wër loolu moo tax caaxaankat bu jóg yàqkat bu jóg da ngay fexe ba ñu lay wër nañ nekk ay jeunes boo amee ay jeune nit ñi yëg na yow am nga atu parce que li nga yore jeunesse la loolu atu la kon mën nañ def ak yow marchandage politique mën nañ def ak yow marchandage économique mën nañ def ak yow marchandage sax religieux parce que da ngaa yor loo xam ne atu la muy jeunesse nga yore mbooloo nga yor loolu moo tax loolu li moo tax bàyyi xel la moo tax li gën a bëri li yàq jeunes yi lenn li suñu biir la nekk waaye lenn li lu nekk ci biti la lu extérieur la lu nekk ci biti mbokk yi sabab yi nga xam ne mooy tax jeunes yu bëri di dévier sabab yi ba ca njëkk moom mooy jeunes yu bëri amuñu programme dañoo vide dañoo am temps bu bëri temps bu bëri lañ am temps bu bëri soo ko amee temps moom lii moo ci am temps bi nga passé ko ci lu neex yàlla wala nga passé nga passé temps bi ci lu neexul yàlla te bu fekkee amoo lu la occupé ci wàllu diine temps bi da koy passé ci loo xam ne mooy yàlla la tey li gën a bëri ci jeunes yi dañoo am temps temps bu libre boo xam ni amul ñu luñ ci def jànguñu diine dégluwuñu ay waaraate dégluwuñ ku leen di wax ci yàlla léegi temps boobu yëpp dañ koy passé ci fo passé ko ci folklore passé ko ci li ñuy tuddee tey xumbute dagan ci lañ koy passé te lu xumbute dagan amul moo tax vide dafa bokk ci li nga xam ni mën naa détruire ab société mën naa détruire aussi ab jeunesse jeunesse boo xam ne lu ëpp ci taaram amul ci lu mu ko passé lu dul ci foo ak caaxaan fecc lamb tëb dal bëre yu kenn xamul léegi jeunesse boo xam ne sa temps yëpp di nga am dafa vidd ca vidd boobu da nga koy passé waat ci lu vidd doo réaliser dara di ci sa diina di ci sa aduna loolu mooy sànq li nga xam ne moom mooy jeune bi loolu moo tax a bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi Buxaari solo Ibnu Abbas nettali ko mu ne nicmataani ñaar yi xéewal lañu maxbunun fihima kasiru min annaas ñu bëri ci doomu aadama dañ ko sàggane as sixatu mooy wér gi yaram wal faraax ak vide jamono bi nga xamee ne am nga wér gi yaram feebaroo nga war a profité ci wér gu yaram gi jàng ci xam-xam jaamu ci yàlla def ci lu baax lu la jëriñ sa àdduna ak sa àllaaxira ñu bëri ko def dañuy bàyyi ba feebar ba tële di door a rëccu jamono bi nga xamee ne am nga temps nga war ci profité jàng sa diine liggéey sa avenir liggéey lu lay jëriñ àdduna lu lay jëriñ àllaaxira doo ko def da nga koy sacrifier comme la plupart tey des jeunes tëdd béye guddi gi nelaw bëccëg bi loolu boo koy def doo réaliser dara kooku mooy alfaraab mooy biddi gi loolu mat a bàyyi xel la ñaareel bi mooy bokk na ci li nga xam ne day indi déviation ci wàllu jeunesse mooy ak tafakkuk al usari mooy euh, tas bu am ci biir famille bi ñu dem ba yàgg xale bi euh, papaam ak yaayam tàqalikoo bu tàqalikoo amee li gën a bari yaa gi jël ko yóbbu loolu mooy li gën a bari li am léeg-léeg papa gi des ak moom bu ko yaay ji jëlee yóbbu yaa ji da koy yóbbu seen kër wala bu ko yóbbul seen kër day dem luwe ji nekk ak moom feneen léegi seen kër beneen éducation mën na fa nekk bu wuteeg bi papaam bëggoon wala bu wuteeg bi ñu commencé woon yar xale bi yaay mën na continuer di def effort mais xale bi day ñëw ci kër gi xale yoo xam ni moom amaana këram biñ ko yar daawul déglu musique daawul seetaan yenn yenn programme télé yi daawul dem ci yenn place yi mu ñëw ci kër gi fekk fi xale yoo xam ne ñoom déglu musique ak dem ci ay place u caaxaan jël seen temps passé ko ci yeneen loolu la ñuy def mu ànd ceeg ñoom loolu commencé yàq li nga xam ne moom mooy éducation bi nga xam ni moom la xale bi amoon bëriwaane xale bu yàqu lan moo tax xale bi jeng jékki-jékki doon agresseur doon sàcc di tux di naan di di tux yàmba di gees mooy ay waajuram ñoo tàqalikoo toppatoo bi waroon a am amatul ci moom parce que papaam ak yaayam nekkatuñ ñoom ñaar di ko bàyyi xel di ko surveiller seen bopp di ko yaral seen bopp ñeneen ñoo gën a am accès ci moom xale bi mujj yàqu loolu bëri na lool lu muy am mooy tas boo xam ne am na ci famille bëri na lu xale yoo xam ni yàqu nañ loolu moom moo leen ko indi bokk na ci ñetteelu tomb bi mooy a rufqatu a mooy àndandoo gu bon bëriwaa ku yàqu boo ko laajoon lan moo ko yàq mooy fréquentation bu bon moom moo ko yàq dafay ànd ñoo xam ni ñoo ko mag ànd ñoo xam ni ñoo ko gën a dëgër fit ñoo xam ni ñoo ko gën xam ni duñu moroomam ànd ak ñoo xam ni dañoo chronique ci def lu bon mu commencé leen fréquenté ñu commencé ko dugal ci ay tooxi doona commencé ko dugal ci ay bon bon commencé ko dugal ci ay yàqu-yàqu commencé ko def loo mbir yoo xam ni musu koo xalaat a def loolu moo doomu aadama bi na xalaat bu baax na xool bu baax ci nga xam ni moom lay moom lay àndal loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, wax ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne masalul jalisi saalih wasu misaalu àndandoo bu baax ak àndandoo bu bon ni mu mel mu ne ko xaamilil miski wa naafixil dafa mel ni jaaykatu parfum ak waajoo xam ne jaayul parfum waaye ab tëgg la boo xam ne dafa nekk ci palaasu tëggam gi ëpp li nga xam ne moom mooy furnu xalam mu ni fa xaamilul misk gis nga kuy jaay parfum nee boo toogee moom imma an yuxziyaka nee na mën naa jékki-jékki may la ne la laalal nga laal boo fa jógee dem yóbbaale xetu parfum bu neex wa imma an tabtaa minhu wala sax nga jënd ci waa ji jël yóbbu boo demee yóbbaale nga parfum wa imma an tajido minhu rihan tayiba waa ji mën na laa bañ a may sax mën ngaa bañ a jënd mais nga toog fa rek muy xelli parfum bi di xelli di xelli parfum di jël fi di sotti am lu naaw ñëw ci yow nga jóge fa yóbbaale odeur parfum bu neex nee na àndandoo bu baax noonu la mel amul pertement mu ne àndandoo bu bon dafa mel nii waa ji nga xam ne forgeron la tëgg la bu toog ci mbaaram di ëpp xalam nee soo fa toogee soit mu ëpp tàkk-tàkk safara yi laal sa yére lakk la nga jël fa nga jóge fa yóbbaale yére bu lakk wala sax lakku la waaye jóg nga fa saxaar bi mu doon ëpp saxaar bi nga jóg fa yóbbaale saxaar boo xam ne saxaar bu naqari la muy doon xet bu naqari nee na imma an yuxarriqa siyaabak wa imma an tajida tajida riixan xabisa wala nga am ci ngelaw loo xam ni xet boo xam ne neexul loolu bokk na ci li nga xam ni euh, lu mot a bàyyi xel la boo tax waykatu arab ba waxoon ne an il mar'i la tasal wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaarani yaqtadi nee na nit ki soo ko bëggee xam bu laajte mooy kan te xel ba xam ñu muy àndal doomu aadama bi ñu muy àndal ñooñu ñen mel noonu la mel ci ñoom lay roy nañ mel noonu la mel ci ñoom lay roy loolu moo tax loolu bokk na ci sabab yi bokk na ci mooy at taasiru salbi lil ilaam mbokk yi dañoo yor li nga xam ni moom mooy euh, média boo xam ni média boo xam ni média la boo xam ni liggéey bu baax du ko def du tasaare lu baax du wone lu baax du jàllale aussi loo xam ni lu baax la média bi ñu yor boo koy déglu suba ngoon guddeeg bëccëg chaque jour que jëfe bés bu yàlla sàkk nga xëy jënd journal déglu rajo déglu télé mboolem luy média bu ñuy lire wala média bu ñuy déglu wala média bu ñuy seetaan nga toog di ko xool gis na ñu ngi jàllale benn programme buy tax Sénégal jëm kanam benn programme buy defar jikko benn programme boo xam ne doomu aadama yi dañ ciy jàng diine gu leer jëriñu ku ko xam ci ban télé dama ko wax programme u fecc tëb di dal programme lamb programme élection u miis programme caaxaan ila axi ba mu jeex te dafa mel ni Sénégal média li ñuy wone dafa mel ni Sénégal boo xoolee ba Sénégal jeex nit ñi ñoo fi am mooy politicien mënoo xëy suba ba ngoon jot à la une journaux yi télé yi rajo yi émission télé boo jàpp ab politicien lañ invité ana borom xam-xam yi mel ni ay borom xam-xam nekkul ci dëkk bi lu tax duñ leen jëm jëli invité leen problème social yi ñuy dund problème économique yi ñuy dund problème éthique yi ñuy dund problème culturel yi ñuy dund ñu tàllal leen micro wax leen lan la ci alquran wax lan la ci sunna wax lan la ci lislaam jàngale ñu wax leen ci loo xam ne xam-xam bu leer la lan moo tax actualité bu xew duñ dem seeti borom xam-xam yi leen bu demee nii su amee l'islam lan la ci jàngale lan lañ ci war a jël luñ ci war a jël luñ ci war a jëfe luñ ci war a moytu te l'islam problème yëpp la résoudre duñ ko def chaque télé boo taal ab politicien moo fa nekk di wax bu politicien nekkul di wax ab waykat lañ invité ba mu fekkul waykat ab mbër lañu invité ba fekkul mbër ab gisaanekat moo fa nekk léegi mel ni Sénégal politicien moo fi nekk gisaanekat njabarkat waykat Sénégal amul ay imaam yu baax amul ay borom xam yu baax amul ñu jàng diine bu leer bal la ngay yaakaaree diine ñu jël ay nit ñoo xam ni ñu waroon a jàngi lañ ñu waroon a jàngi ñu jox leen programme ñu ne dañuy jàngal ay nit nit koo xam ne bu jàngee aaya yàq ko bu jàngee xadis yàq maas yi ñu ne kooku dafay jàngale kooku lu muy jàngale léegi réew moo xam ne loolu la ñuy dund jeunesse boo xam ne loolu moo la entouré amoo benn régulateur lu la loo xam ne dafa lay orienté da lay apaiser da lay xëcc jëmale ci jëmale la ci lu baax boo ñàkkee boo ñàkkul chance dëgg di nga tàbbi foofa parce que nag li baax dafa néew li bon li lañ gën a fësal lu tax suñu média yi chaque ajjuma ay jàkka xutba ci actualité xutba lu xew dindi nit ñi ci problème yi am duñ ko jël def ko à la une ko ci seen journaux nit ñi liit ko jëriñu lu tax xutba yooyu di jàll ci télé yi direct lu tax rajo yi duñ ko jàllale direct mën a jàllale ay programme rap ay programme podium mën a jàllale ay programme làmb direct ay programme fecc direct ay programme soirée direct te programme ay xutba juma ak ay programme conférence mënta jàll suñu média yi direct loolu bu fekkee moom la ñuy dund milieu boobu ku ci nekk pour nga bon pour nga dévier pour nga yàqu sa très facile parce que bon fi bon fi moo gën a jege nga baax fi mbon moo gën a tasaaroo baax te mbon su gën a tasaaroo baax doomu aadama bi li mu gis ci lay jàpp te loolu mooy réalité bi ñuy dund loolu mooy réalité bi nga xam ni moom la ñuy dund loolu moo tax média bi ñu am war nañ ko xoolaat doomu adama yi nag ñoom bi dañoo gëlëm ànd ak média bi média bi fu mu leen orienté ñu dem fa ku ko neex baax média boo xam ni ku ko neex mu baaxal ko ku ko neex mu bonal ko jël caaxaan fexe ba def ko dëgg jël dëgg fexe ba marginaliser ko doyalal ko des ko ginnaaw loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dund te war nañ leen orienté xëcc leen li baax li am ci dëkk bi ci lislaam gu wér ñu won ko doomu aadama yàlla xam ne ne buñ ko doon wane léegi dëkk bi changé waaye malheureusement loolee amagul bokk na ci mooy li ëpp ci jeunesse réew mi li ëpp ci jeunes yi li ëpp ci jeunes yi dañoo ñàkk référence xamuñu ku ñuy roy boo jëloon micro bi tey di wër def micro trottoir boo demee ci xale yu jigéen yi tey xale yu jigéen yi ñu am 12 ans ba cinq ans nga taala leen micro ne leen ni kat nga bëgg a mel soo màggee ab feccikat lañ lay wax man ni diw laa bëgg a mel benn feccikat boo demee ci góor ñi ñu am 15 ans ba jëm 25 ans nga taala leen micro ne soo màggee koo bëgg a mel benn mbër bu nekk ci banlieue bi lañ lay wax ni moom laa bëgg léegi jeunesse boo xam ne jigéen ñi ay feccikat lañ bëgg a dooni góor ñi ay mbër lañ bëgg a dooni foofu yàqu fa moo gën a yomb baax fa mhm. léegi jeunesse boobu dañoo ñàkk référence amuñu ci fu amuñu référence fu ñuy référé wu loolu moo tax yàqute dafay yomb lool parce que ñi yàqu wala ñi nga xam ni nekkuñu ñu ñu waroon a tasaare nekkuñu ñu ñu waroon a wone dañu leen a waroon a nëbb waru ñu woon a doon ay star dañ leen a mettre au diapason mettre leen au premier plan fexe ba def leen star te vraiment duñu ay star doonuñu ko mais fexe nañ ba def leen ay star ba léegi ñëpp ñoom lañu waroon a ñoom lañ bëgg ñoom lañ bëgg a mel li jaadu woon mooy réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ soo tàllalee micro xale yu jigéen yi ne leen noo bëgg a mel ñu ne lañ ni Adja Binta Thiaw laa a mel soo tàllalee micro góor ñi ne leen koo bëgg mel ñu tuddal ay imam wala ay borom xam-xam wala tuddal ay turu sahaba loolu moo ja loolu moo doonoon li jaadu moo tax jeunesse bu tiitu lañu am jeunesse boo xam ni jigéen ñi ay fecckat lañ bëgg doon yi góor ñi ay mbër lañ bëgg a doon yi réew moomu ëllëgam jar naa tiit réew moomu ëllëgam jar bu baax baax a baax bokk na ci mooy al uzufu ani dirasa mooy léegi jàng bi éducation bu Sénégal enseignement bi jàng bi espoir da cee amatul nit ñi seen espoir dafa yàqu ci njàng mi parce que li doonoon li taxoon nit ñi doon dugal seen doom njàngum tubaab bàyyi njàngum alxuraan ak franco arabe bi mooy dañ jàpp ne xale bi jàng tubaab war naa mën a réussir ñëw yor kër gi wutu papaam léegi ñoom ñëpp xam nañ ne jàng tubaab ba am ay diplôme ba def sa tey soxul nga liggéey léegi kon espoir amatul ci njàng mi léegi jeunes yi ñu bëri buñ jàngul comme ay xar la ñuy doon ay bàyyi ma parce que jàng lu mu bon bon boo jàngul pour am liggéey di nga jàng pour xam xam-xam boobu connaissance boobu dafa lay jëriñ dalay lay orienté ba du ku nekk moo lay guidé du ku nekk moo lay orienté du ku nekk ngay jël mu doon sa modèle boo gisee ñu ñëpp ñu jiitu woon donte diine leew seen seen bopp mais amoon nañ njàng mu mu set mu civilisé mu leen may yenn yi ñu jomboon ko bu njëkk loolu mooy li manqué loolu moo tax njàng mi nga xam ni euh, xale yi amatuñ ci yaakaar nii jàng amatuñ ci yaakaar ci njàng mi parce que jàpp nañ ne jàng bi taxatul ñu réussir loolu dafa yàq lu bëree bëri dafa yàq lu bëree bëri ba léegi nit ñi xale yi di bàyyi jàng primaire la ñuy bàyyee jàng commencé entraîné wu bu dee ko góor ci commencé dem ci tefes gi commencé fréquenté ay nit di entraîné wu jàpp ne moom fii ak dañ ko war a dégg ci làmb gi man balaa yàgg di ngeen ma dégg léegi xale yi loolu la ñu tiitaroo xale bu jigéen bi jàpp na ne bu àggee sëm dën na bàyyi donte gars yi amul campagne bu mu deful sorti xaalis pour njàngum xale yu jigéen yi te njàng waruñu rek campagne pour xale yu jigéen yi ñëpp lañ war a campagneel pour ñu jàng waaye xale yu jigéen yi leneen la dafa am lu ci nekk ba tax na euh, ñoom it ku ci échec ci wàllu njàng li ngay njëkk a def yi mooy salon de coiffure wala wala wala wala école école de danse dam fay ci ci loolu ngay xalaat pour daal di koy doon su ko defee bàyyi njàng moom mu teel nga xam ne li ñuy mujj am moo lu ëpp ci jeunesse bi nekkuñu ay académicien amatuñ njàng boo xam ne enseignement supérieur la amatuñ njàng bu kawe ñooñu duñ yeew ku ñëw mën na leen këf yóbbu ku ñëw mën a leen këf yóbbu loolu bokk na ci li nga xam ne am nañ ko bokk na ci it mooy albatala mooy réew bu fekkee ni programme état yi boole wuñ ci programme bu sérieux bu sérieux boo xam ne du politique politicienne du ay wax mais programme bu sérieux la pour wutal ndaw ñi ay liggéey bu fekkee loolu amul ba li ëpp ci jeunes yi dix jeunes yoo jël ñaar ñoo ciy liggéey ñaar ñoo ciy liggéey dix jeunes yoo jël ñaar ñoo ciy liggéey léegi chômage boobu bëri xale yu bëri di chômage chômage googu bëri daf leen di jox vide jox leen temps libre su leen joxee vide ak temps libre fa mu mujjee ak ñoom du neex mooy xale yu organisé wu la doon doon ay réseau di yëngu ci wàllu cybercriminalité wala ñu nekk ñoo xam ne dañuy organisé wu di sàcc wala ñuy trafiqué de drogue di jaay yàmba te loolu moom mooy li am tey hmm. moo tax réew bu bëgg a éradiquer trafic de drogue éradiquer jaay yàmba éradiquer wàllu prostitution muy ay jigéen yu jaay seen bopp éradiquer yàqu-yàqute yooyu di am ci ndaw yi mooy fexeel ba ndaw yi am liggéey ñu leen ñu am liggéey yu leen di occupé di xëy di wàcc duñ tal yooyu li tax ñu tal ko mooy dañoo vide liberté ñu am ci wàllu temps temps bu bi ñu am moo bëri ñu amuñu ñu ko def ñu def ko ci caaxaan ak fo ak lu ak lu détruire seen avenir mais sax lu détruire seen diine ak société bi ñu dëm bokk na ci yi mën a indi li nga xam ne mooy yàqu-yàqu te ci ndaw ñi mooy adamul adala al ijtimaia mooy buñ demee ba justice sociale amul justice sociale amul li nga xam ni moom mooy am amu dëkk bi koom gi buñ ko génnee répartition bi dafay nekk répartition bu inégal du tolloo am ñoo xam ne duñ ci sentir seen bopp dañ jàpp ne benn groupe ñoo fi nekk jàpp ñu otage di jël les biens communs muy li ñëpp bokk moom ko ñoom ñoo ko moo jël ko di ko jëriñoo bàyyi ñeneen ñi loolu dafay indi frustration dafay indi aussi euh, ñooña lu ñuy def rek mooy lu bon ci lañ ci seen xel di dem parce que dañuy jàpp ni fii ñenn ñoo fi nekk war a tedd war a baax ñun yoon bi gën a gàtt doon raccourci pour ñu réussir mooy sàcc seen triande trafiqué ak def lu bon su ko defee ah, ci loolu ci la ñuy passé li nga xam ne moom mooy seenu seenu ndaw loolu mat a bàyyi xel la ah, naka bu ñu demee ba jeng ci wàllu àtte am réew bu fekkee jeng ci wàllu justice ci wàllu àtte dafa am mun na jur yàqute googu bu baax a baax parce que dañuy jàpp ku ñu war jàpp tëj ku ñu war a tëj te li ëpp ci ndaw yi bu fekkee ni dañuy passé seen seen temps ci wàllu kaso yi te kaso yi amu fa programme diine bu ñu leen di jàngal amuñu lu leen di régulariser di leen delloo ci yàlla xamal leen ne lii jaar jaar la njuumte la daañ génn nit ñu baax ñëpp jaar nañ kaso yéen ci yàlla Yuusuf yonentu la woon te jaar na kaso delloolewaat leen ci yàlla ba buñ génnee mën a bokkaat société bi mën a sarate tuub nekkaat yeneen nit loolu bu amul buñ fa génnee kaso ba ak yàqu gën a bu gën a bon la ñuy génne waale kaso indi indi ko ci société bi tey bëri na ñu yàqu la leen yàqu mooy dañ leen a tooñ jàpp leen dugal leen kaso alors que waruñu ko woon dugg dañ leen tooñ dañ leen a ëpp leen doole tëj leen ñu nekk kaso génn kaso ba ñu yàqoo fa far loolu bokk na ci li nga xam ne dafay am bokk na ci li nga xam ni mën na yàq xale yi réeral leen euh, ñu nekk ñoo xam ni ñu nekk ñoo xam ni dañuy dañuy dañuy déviyewu mooy sabbul ulama wa taanu fihim wa isaatu zanni bihim buñ demee ba jeunes yi ñi yaakaaroon sax ne dañuy góor góorgóorlu ci wàllu diine nga dégg ñu yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci seen i borom xam-xam ne suñuy borom xam-xam dañoo ragal ñemewuñ masala yi dañ koy daw di leen jam di ñaaw ci ñoom njort di tuut di leen tuutal di leen doyadal ba benn borom xam-xam taxawatul seen kanam parce que borom xam-xam yëpp daaneel lañ leen hmm. léegi borom xam-xam yëpp boo leen daanelee diw moom dafa juum fii xamul dara diw dafa nekk koo xam ni dafa ragal diw nangam ba benn borom xam-xam existé sul sa kanam léegi yow yaay doon sa borom xam-xamu bopp fan ngay mujj mooy def ay dégâts te loolu moom la ñuy dund loolu bokk na tey ci jeunes yu bëree bëri yi def ay dégâts ci turu diine dañoo dem ba respecté tuñ benn boroom xam-xam reconnaître reconnaître dañoo dem ba reconnaître tuñ xam-xamu benn borom xam-xam ci ñoom kenn amul xam-xam seen kanam kenn nekkatul borom xam-xam seen kanam te boroom xam-xam nag mënta ñàkk borom xam-xam mënta ñàkk monde boo xam ne dañuy dund monde boo xam ne sans borom xam-xam te yow nangu nga ne nangu nga ne am na ñu am xam-xamu histoire am ñu am xam-xamu géographie am ñu am xam-xamu am ñu xam am ñu am xam-xamu mécanicien am ñu am xam-xamu informatique xam-xam yooyu nangu nga ko waaye nangu woone am na ko am xam-xamu diini te boo feebaree ñu yóbbu la ci docteur bi nga nangu ne kii am na xam-xam mën na maa faj kooku nga reconnaître ko xam-xamam ci jàng diine nga bañal ko xam-xamam loolu saa buñ ko tolloo ndaw yooyu léegi dootul am lu leen canaliser du amati lu leen téye kenn ku nekk yaay sa chefu bopp yaay sa njiitu bopp yaay sa gidu bopp yaa ngay dem ci mbir yi léegi ni nga ko sentiré selon sa gu selon sensation bi nga am ak ni nga ko bëggee ci ngay ne mais dematoo ci xam-xam dematoo ci dara loolu mën naa mën naa dévier li nga xam ne mooy ay ndaw mën na leen a sànq mën leen mën leen a réeral bu baax a baax a baax kon loolu mooy yiy sabab bëri na lool waaye dañ ko tënk yooyu mooy yenn yi nga xam ni dafay sabab li nga xam ne moom mooy yàqu-yàqu ndaw yi loolu bokk na bu baax a baax a a baax euh, li nga xam ni moom mooy euh, déviation wu jën yàqu-yàqu ndaw ñi dafa am nu muy manifesté woo ngir yoo xam ne buñ ko gisee xam ne jeunesse bi ndaw ñi yàqute moo gën a bari ci ñoom ñu yàqu lañ ñu war a defaraat la loolu bokk na ci mooy intisaaru zina mooy société boo xam ni njaalo dafa tasaaroo ba njaalo sax dañ koy bëgg a daganal dañ koy bëgg a daganal ne jigéen bi am na droit jaay boppam waaye ci condition wu ne na am carte bu amul carte ci la mbir mi garaaw waaye bu amee carte mbir mi garaawul xoolal di banaliser mbir mi banaliser ko oyofal ko ba ni léegi li li war a def ci bopp nit ñi mooy jigéen buy jaay boppam bu amul carte foofu moo garaaw mais bu amee carte dara nekku ci kan moo wax loolu loolu kan moo ko wax jëm ni jigéen di jaay boppam ci boppam moo moo daganul civilisé wul nitewul nitewul bi am carte ak bi ñàkk am carte ci yem loolu ak yàqute la ak mbonte la dañ ko war a dénoncer dañ ko war a xeex parce que kooku dafa yàq dafa yàqu ba pare mais day yàq jeunesse day yàq ay nit dafa yàqu di yàq ay nit te koy yàqaate dañ ko war a freiner dañ ko war a freiner loolu bokk na ci te si gisaaka nekkul ci ne dëkk bi ñuy nekk njaaw lu fi tasaaroo loolu la ay këriñ fi yoo xam ne bu yuutu daara ay kër yi yoo xam ne dañ ko légaliser ne ay kër la yoo xam ni kër la yoo xam ni pour kuy jaay sa bopp la yi ñu tuddee ko hôtel yi ñu tuddee ko auberge ñu tuddee ko ay maison de passe ila axirihi yooyu autorité yi sécurité yi ñëpp xam ko ñu téye seen bopp ne tekk yi mel dara xewul te yooyu yi yàq dëkk bi tey nit ñi fa ñuy yàqoo tey mooy place yooyu ndaw yi fa leen di yàq tey ci place yooyu la ñuy yàqoo te borom bi subhaanahu wa njaaloo garaaw bi mu garaaw moo tax yàlla waxul ne la taznu ci alquran waxul ne bu leen njaaloo waaye da dafa wax ni wala taqrabu zina bu leen jege njaalo innahu kaana fahishatan wa saa sabila njaalo jëf ju bon la te ku ko jël jël nga yoon wu bon jël nga yoon wu bon borom bu leen ko jege bu leen ko jege ñu indi ay nit ñoo xam ne jamono yàqu na bañ dem ne jàngat nañ sax alquran ba mu jeex waaye gis ñu fu yàlla araamal njaalo ci alquran yàlla dafa wax ne rek bu leen ko jege yàlla subhaanahu wa taala moo defar nit xam mentalité doomu aadama bu yàlla waxoon ne bu leen njaalo ñu ne non yàlla dafa wax ne bu leen njaalo mais waxul ne bu leen jege kon mën na jege moo tax yàlla ne leen jege boo jegewul doo njaalo su ma la waxee ne sa lii sama buntu kër la bu ko bul jege sama sama kër bu fa jege ma ñëw fekk la ci kaw lal bi nga toog ma ne yow lu ma la waxoon nga dema da nga maa waxoon du ma jege kër gi man dama ci kaw lal bi laa toog yow da ngaa da ngaa da ngaa jege ba romb jege bëtt kër gi ba dugg ba dugg ci néeg ba ba toog ci kaw lal léegi yàlla moo tax waxul ne bu leen jaaro moo tax mu ne bu leen jege parce que doomu aadama tappaleem ak mën a bët wëlbati waxu yàlla bu yàlla waxoon bu leen njaalo ñu ne yàlla njaalo tere waaye terewul jege kon nañ jege moo tax yàlla tëj bunt bi mais wala taqrabu zina njaalo bu leen ko jege bokk na ci njaalo ci bàkkaar yu mag yi la bokk moo tax li daal di koy araamal waaye dafay tasaare ay feebar dafay yàq askan yi day tax askan yi jaxasoo dañuy dem ba ay ay xale dañuy judd kenn du xam fuñ bokk parce que xale bi nga xam ni dafa judd ci hors mariage ñu ne kan mooy baayam yow nga ñëw taxaw fëgg ne man maa man maay baayam maa ko jur kenn gënu laa ñàkk fulla kenn gënu laa ñàkk fayda ndaw si dafay joxe boppam est-ce que ci yow rek la yem ndax dañ ngaa dóor sa loxo ci ne yow rek la jox boppam kuy joxe boppam mënoo koo waatal ne kii la jox bàyyi ki léegi yow da ngaa yaakaar ne yow rek a fi nekkoon waaye est ce yow rek a fi nekk moo tax l'islam ci cadre lay waxee ni comme ndaw si day joxe boppam mën naa jox boppam ku nekk kon bàyyi ji duñ ko askanale kenn parce que judduwul ci biir sëy parce que kooku ku ne mën naa doon bàyyam ku ñàkk fu laak rek ba ne yaay bàyyam tey nga am ne doo bàyyam beneen bi moom mooy njaaloo buñ ko bàyyee mu tasaaroo dafay indi góor ñu bëri ñu war a sëy duñ sëy dafay indi jigéen ñu bari ñoo xam ne dañuy lamb dañuy war a sëy duñ sëy parce que góor ñi dañuy jàpp ni li borom kër yi di am maa ngi koy am te ba pare man dépense wàcc na ma ordonnance wàcc na ma luwaas wàcc na ma faj xale yi wàcc na ma yooyu yëpp wàcc na ma kon kay man jarul may takk soxna te boo gisee tey société bi nga gis phénomène ay jigéen yu am 30 ans 35 ans duñu am jëkkër loolu léegi la commencé am mais bu njëkk daawul am bu njëkk li amoon suñ jamonoy maam xale bu jigéen boo toogee si yow bu soree ba sori mooy 18 ans 18 ans fu ko amoon sa yoo sax maanaam mbir bi day xaw a nekk aw xas ci yow léegi ngay gis ay magim jëmm yu am cinq ans amuñu waxaale 35 ans dañ koy am duñu am waxaale loolu phénomène u njaalo gi tasaaroo def cee joué daf cee joué parce que koo gis muy génn di dem am na ko muy àndal foo xam ne fa lay fajee bànneexam jàpp ne ne kon moment bi teel na pour muy wut soxla naa bàyyi ba ci kanam parce que li tax lu may yàkkam di wut soxna nekku fi am naa coro bu may bu may bu may génn nag am naa ko ma nekkal loolu dafa bokk ci conséquence néfaste yi nga xam ni njaalo daf koy indi bokk na ci euh, Euh, li nga xam ne moom mooy wàllu ngóor jigéen société ba mu tasaaroo société bu yàqu la te loolu réew mi gaañi amul tentation tenta tentation buñ deful amul lu jéemul pour daganal ko ci réew mi amul luñ jéemul pour obliger ñu ko pour forcer ñu ko te ñoom ñoo wax ne démocratie mooy doomu aadama yi ëpp liñ gëm liñ bëgg ñu bàyyi leen ci waaye loolu dañ koy utiliser bu fekkee daf leen arrangé xam nañu li ëpp ci réew mi quatre-vingt-quinze pour cent lañ ci ay musulmans dëgg la ñu ëpp ci ñoom dañoo réere seen diine waaye li ëpp ci réew mi nanguwuñ wàllum góor jigéen ñi ko fi nangu naan góor jigéen mën na fi am ñooñu mën na leen wàññi ci ay baaraam ci ay association droit de l'homme ak ay association féministe alors que ay féministe lañ mën na leen wàññi ci ay baaraam ñu mën a wàññi ci ay baaraam lañ léegi ñooñu bëgg ne Euh, li démocratie nangu muy majorité ñu ëpp ci doomu aadama yi ànduñu ci ñu bëgg a forcer parce que jàpp nañ ni Sénégal ku nekk ci rajo yeeg télé di wax subaa ngoon guddeeg bëccëg bu yàggee ñu jàpp ne loolu moo li ñëpp ànd alors ko li ñëpp ànd ñoom demuñu ci rajo yeeg télé di wax waaye ñu ngi ne kell jàpp seen jaamu te am ñu ca lool loolu moo tax euh, yàlla mi ngi defal sutura yàlla mi ngi sàmm suñu réew ba tey réewu jullit yu bari daganal ko ñun dagaluñ daganaluñu loolu te ñu ngi ñaan yàlla ci jataay bi yàlla bu mu fi dagal loolu moo tax loolu fu mu tasaaroo Ah, société boobu yàqu na duñ wax ne fii tasaaroo na fi de waaye am na fi am na fi te jéem nañ def coup médiatique bu nekk jéem a médiatiser ay góor jigéen wane na ñoom góor jigéen ngee tax ñu tekki am alal nekk li nekk di dimbali seen i ñaari waajur euh, euh, nekk ci situation boo xam ne bu baax la te wàllu ngóor jigéen moo leen ko may ñu jàpp ni loolu buñ ko fësalee nit ko mel noonu jeunesse bi loolu dina leen poussé ñi nga xam ne ñu bari ci ñoom jéem lañ fëgg bunt yu nekk pour am dara sottiwul dinañ jaar ci bunt yàqu pour jéem a tekki waaye ba tey yàlla ñuy defal sutura loolu moo tax euh, loolu bokk ne fu mu tasaaroo it euh, ñu xam ni société bu yàqu la te ak jigéen mu tasaaroo euh, yàlla subhanahu wa taala wàccee fa meram xam ngeen ne ngóor jigéen ci nit yoon ci yàlla luut ci la njëkk xew ci àdduna ñu koy fësal di ko génnee ba yàlla yónni yonantu luut pour mu xeex lool borom bi wax ne wa luutan id qaala li qawmi innakum la taatuuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kenn ci aduna bi mus leen ci jiitu yéena ko njëkk a def pësul ko góor guy seeg góor jigéen guy seeg jigéen te loolu yàlla xam na ni bàyyi ma yi sax bàyyi ma yi bàyyi ma bu góor ak bu jigéen ñooy sëy waaye doo gis bàyyi ma bu góor ak bu góor di sëy bu jigéen ak bu jigéen di sëy jëf jooju romb na sax jëfu bàyyi ma parce que bàyyi ma yi ko def mbon ak feebar feebaru psychologie feebaru jikko feebaru ngëm feebaru xel mënul romb lool mënu ko romb loolu moo tax charia daal di koy araam yonente bi alayhi salatu salaam waxoon ni man wajatumuhu yaamalu amala xawmi luut faqtulu lfaila wal maful ku ngeen fekk muy jëf jëf jooju muy jëfu nit yonent yàlla luut ya muy wàllu ngóor jigéen ki koy def rey leen ko ki ñu koy def na ngeen ko rey parce que ñaam ñooñu ay dese lañ ci ab société war a éliminer baaxul euh, bokk na ci euh, li nga xam ne mooy li ñu tuddee viol ak taxarus al jinsi naka noonu al ixtilaat euh, viol foo ko fekk société bu mu tasaaroo bu nekk yàqute moo koy waral xam nga ne saa boo xëyee suñu média yi nga xam ne viol rek lañ sa war a tudd rawatina yàlla bu mu nekk sëriñu sëriñu daara wala imaamu jàkka wala jàngalekatu alxuraan wala jàngalekatu arab te professeurs yi ñu ngi violé jàngalekat yi tubaab yi ñu ngi violé directeur société ñu ngi violé journaliste yi ñu ngi violé mais kenn du leen tudd sabarkat yeeg mbër yeeg ñëpp a ngi violé mais ñooñu seenu viol dafa mel ni duñ ko gis viol bi ñuy gis mooy viol bi nga xam ni nee nañ ab sëriñ daara la ab ustaas la ab imaam la jàngalekatu arab la boobu viol moom foog ñu def ko à la te revue de presse yëpp foofu moom la ñuy daanelee moom la ñuy safalee xorom revue de presse bi buñ defee tour di taabal ba jeexal moom la ñuy safalee xorom moom la ñuy tëjee jàpp ne wax nañ dara euh, loolu muy wàllu viol fu mu tasaaroo ak yàqute am na fa mais nag viol dafa am lu koy dafa am lu koy waral mooy buñ demee ba jigéen ñi li ñu waroon a nëbb mu ne fànn ci biti nëbbatuñ ko li góor doon sol moom la jigéen di sol léeg-léeg gis góor jigéen ngay jaawal jaawal ko góob ci anam geeg yëpp te nit ñi boo waxee ñu ne la euh, sa yoon nekkul ci ni mu mel ci biti yàlla xool yi lay xool xol yi lay fay loolu nga xam ne pas-pasul la ak al la mooy al mu mujarrad maarifa qalbiya la ngëm yàlla daal ci xol rek lay nekk xool daal la yàlla xool kon yow ni nga mel ci biir moo am solo ni nga mel ci biti amul solo kooku waxu waxu ji irresponsable la waxu naafiq la waxu doomu aadama li nga mel gëm ko sa xol rek moom ngay feeñal ci biti yàlla xam na ko xol du fen xol du fen mukk li nga gëm mën ngaa takk jaaro takk ay long-long takk chaîne di dox di bonde ti bay di bëgg a daanu ñu wax nga ne non c'est lii dama ko def mais gëwuma ko du dëgg da koo gëm da nga koo gëm sa biir xol la nekk dangaa ngaa gëm luk boobu gëm na yow nii nga jeune nga da ngaa sa digg ndaw nii nga war a soloon nii nga war a mel da nga koo gëm moo tax nga manifester ko ci biti borom dañu wax ne xol boo jëloon xol boo jëloon éponge bu bees tax nga jënd ko ci boutique bi nga ñëw teg ñetti siwo nga teg siwo bisaab siwo soow ak siwo ndox éponge bi boo ko jëlee dugal ko ci siwo bisaab bi sooy wañee bisaab booy génn même éponge boo ko jëloon dugalaat ko ci siwo soow bi sooy wañ soo way génn éponge bi du fen li nekk ci biiram rek lay génnee xool aussi du fen li nekk ci biiram lay génnee dañuy wax ne góor gi dafa dugg oto toog ak benn booy bo benn jeune mu rasta bopp bi takk fii long long takk fii long takk seen bu am ngan di mu xool ko xool ko mënu ko supporté mu ne ko doom doo góorgóorlu sa rasta yeeg sa njañ yeeg sa jaaro yeeg lom yi nga dindi ko mu ne ko père yàlla xol lay xool lay xool góor gi ko ba yàgg ne ko doom looloo ma tiital li xol bi fas moo génn ci biti li xol bi fas moo génn ci biti ma hmm. loolu ma tiital moo tax ma wax la li a wax effectivement hmm. xol lim fas loolu mooy génn ci biti moo tax nit ki li nga fas sa xol rek moom ngay feeñal loolu moo ta bàyyi xel la moo tax euh, euh, boo gëmoon sel gëm lu baax ragal yàlla nekk ci xol bi du n'importe comment ngay solo mm-hmm. du n'importe quel comportement aussi ngay àndal wala ngay comporté woo loolu lu mat bàyyi xel euh, loolu moo tax viol yi am dafa am sabab mooy xale jigéen lañ leen di bàyyi ñu def mu neen solo nu leen neexee dépp ñu nekk ndaw lañ daan jiital ci biir yëpp mu nekk ci biti nit ñi dañu teg seen bët loolu bu yàggee nit ñi dafa am ñoo xam ne dañoo am feebaru xol am feebaru xel lenn ñi mënuñu ko supporter fam leen di yóbbu mooy siif jigéen la leen di yóbbu te loolu moom mooy li ko indi moo tax bu ñuy wax ñoom wàllu viol gi rek la ñuy wax viol gi kenn ànd ci ñëpp ko condamné mais est-ce que li koy li koy li koy li koy waral ndax duñ ko étudier feebar soo ko bëggee faj doo def waa ji saa bu ñëwee indi feebar bi re nga ko mais da koy da def prévention li nga xam ne mooy indi feebar bi fexeel nga éradiquer ko nga daal di koy dagg ba feebar bi dootul am loolu moo tax wàllu viol bi li ko indi mooy ñàkk a respecté principe u l'islam ci góor ak jigéen jaxasoo gi respecté wuñ ko jaxasoo gi nu ne lay amee jabaru jaamur nga mën ko fóon mën ko akalaat bu yàggee nga ne ah ci lexam yi nooy na de bu yàggee sa xel nekk ci moom effectivement parce que frontière bi nga waroon a yem diggante góor ak jigéen limite boobu da nga faa loolu moo la ko yóbbee moo tax bu yàggee fa àgg mooy sàkk ko njaaloog moom wala it bu njaalo amul viol dana am te yooyu euh, moom lañuy ñuy bokk na ci liy wone li nga xam ne moom mooy société wala jeune ndaw yu yàqu mooy intisaarul muxaddiraat wal musakkiraat mooy dorog yàmba gin ak li nga xam ne mooy sàngara bu tasaaroo ci ab société te ñu xool gis ñu ëpp ñu koy consommé mooy jeunes kooku yàqu-yàqu la ci wàllu jeunes yi jeunes yi dévié nañ bu dévié nañ yàqu nañ bu baax a baax a baax te si ci sàkk nekkul ci ne dorog yamba géej naan sàngara fii ci Sénégal du lu ñuy werante du lu ñuy werante ay conteneur moo fi wàcc ay butéel la ñuy defar usine ñu koy defar usine bu dox la bal dañ koy jaay ba léegi dañ koy détaillé ci ay mbuus lañu wax yoo xam ne ci lañ koy jaay bu yàggul dégg ngeen reportage bi ci waa RFM def fële ca Thiès ñuy wax ni euh, mbuus yooyu Jakarta lañ ko tuddee Jakarta mu ngi détruire jeunes yi ba gaa yi koy jaay ci weesu ci buntu école yi la ñuy dem fekk fa élèves di leen ko jaay ay élèves yu nekk primaire di ko jënd di consommer léegi bu fekkee ne jeunesse bi ñu am mooy ay góor yoo xam ni yoo xam ni dañuy consommer alcool ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp ëllëg suñu réew nan lay mel xale yu góor yi naan sàngara te sàngara di yàq xel di yàq kàttan xel bi dootu fi nekk kàttan doole dootu fi nekk xale yu jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp jaay seen bopp googu day yàq seen kàttan day rey seen yaram waaye day nëxal seen xel léegi ñooñu ëllëg ñoo war a nekk magi réew mi ban ban ban réew lañu war a ami bu ëllëgee ban réew la ñuy ami su ëllëgee boole ceeg bëgg doon yu mbërëk yi ay feccikat loolu lu jiitlu la loolu moo tax loolu bokk na ci li nga xam ni euh, euh, mën nañ koo xool bu baax a baax gis ni lu tasaaroo la ci dëkk bi te lu mën a yàq lu bëree bëri la <coughs> bokk na ci aussi mooy nit ñi di ko xeeb jàpp ne du dara waaye tuxum poon ak tuxum cigarette mi tasaaroo ci dëkk bi nit ñi woyofal ko ba ba jàpp ni dafa mel ni nit ñi dañoo dëppoo ci ne poon ak cigarette dafa dagal ba booy wax ne dafa araam dañ lay te alors que lu araam la lépp luy détruire xelu doomu aadama lépp luy yàq aralu doomu aadama lépp lépp luy yàq wér yaramu doomu aadama lépp luy yàq askanu doomu aadama lépp luy yàq deru doomu aadama muy ad daruratul xamsa ci lislaam dafay xaram te si gisaaka nekkul ci ni cigarette dafay yàq wér yaram bañ nañ ko ba paquet de cigarette boo jël dañ caa bind ne abus dangereux pour votre sante li ngay consommé di ko jëfandikoo lii de muy cigarette bi day yàq sa wér-gi-yaram organisation mondiale de la santé muy OMS dafa ne cigarette buñ ko mënta ñàkk a jaay it képp bépp usine buy jaay cigarette na ko bind ci sa paquet mboolem paquetu cigarette boo jël tey muy mal Marlboro yëpp ñu bind ca buñ ko publicité sax dañ ko ciy bind yow ñu ne li ngay jëfandikoo dafa yàq sa wér-gi-yaram nga continuer di ko jël dafa yàq sa wér-gi-yaram waaye ndax yàq wér gi mën naa dagan est-ce que mën naa dagan sàngara tax lislaam araamal ko mooy li muy yàq xel mi la day yàq xel njaalo lan moo tax sharia araamal ko mooy day yàq askan jëw ak fen ak lan moo tax sharia araamal ko mooy day yàq deru nit ki day yàq personnalité loolu moo tax cigarette ni muy yàqee wér-gu-yaramu doomu aadama loolee tax lislaam daal koy araamal sa wér-gu-yaram lay yàq te wér gi yaram gi dafay war a nekk nga mën a jaamu yàlla mën a defar sa aduna mën a defar sa àllaaxira bu bu bu wér bu wér gi yaram gi nekkul loolee doo ko mën a def moo tax l'islam dafay préserver sa wér yaram moo tax lépp luy détruire sa wér gi yaram l'islam da koy araamal te cigarette boobu ngay consommer ñu bind ci paquet bi abus dangereux pour votre santé kenn sikki saakawul amul benn médecin buy warante ci ne cigarette dafa yàq wér gi yaramu doomu aadama day détruire day yàq sa xol yàq say poumon yàq say organe te bokk na ci li ñuy seetlu psychologue yëpp wax ko mooy tuxkatu cigarette day gaaw a mer day gaaw a énervé day gaaw a frustré xol bi dafay gaaw a tàng day xol bu xat la yor du mën a supporter dara saaga wala wax lu bon da koy yomb da koy yomb très facilement parce que xol bi day tàng fu mu toll ndax tàngoor bi dem ci xol bi loolu moo tax du ma ta bàyyi xel la euh, bokk na ci mooy carte gu tasaaroo al maysir carte gu tasaaroo ñu naan la boo bëggee gañe oto yónneel ci vingt huit huit cent vingt huit nangam soo bëggee gañe kër yónneel ci nangam soo bëggee gañe euh, billet Makka sax dugal nañ ko ci billet Makka sax nañ ko ci dugal nga envoyé tel léegi envoi envoi yooyu yëpp ñu jàpp ne nit ñi jàpp ne dara nekku ci léeg-léeg sax ñu ne la sa dépense u tey wala dépense fukki fan soo ko bëggee am yónneel tel message soo ko defee dinañ la jox dépense fukki fan nit ñi tey bëgg lu yomb bëgg lu facile ñàkk ragal yàlla ñàkk ragal lekk lu xaraam ñàkk xam seen diine ñàkk xam lu araam lu araamul ay média nekk fi organisé wu nekk ay ay ay ay euh, ay ay bande yu organisé wu di lekk alalu doomu aadama yi di euh, jëfandikoo riba ci neen ak di appauvrir doomu aadama yi jamono bi ñu lay wax ni numéro bi boo ci yónnee boo ci yónnee dara message message rek participation di nga gañe tel jamono bu ñu lay wax ne di nga gañe oto wala dinga nga gañe saaku ceeb wala di nga gañe ration weer jamono boobu benn benn dërëm teguñu ko xam nga lu ñuy def message bi dañ lay wax ne message bi cinq cent lay coûter message bi ci gën a ndaw deux cent cinquante la ci serveur bi koy yónnee léegi loolu mille personnes bu ñu yónnee cinq cent ñaata la ñu jàng mathématique cinq cent mille mille personnes bu ñu yennee message bi cinq cent mille tege na bu dee deux mille personnes ñoo yónnee message bi un million la léegi ci un million boobu ñoom bi ñuy wax loolu ñu teg serveur bi booba teguñu benn xaalis waaye loolu mooy dugal xaalis bi ñoom dañu ubbi benn serveur dem ci Sonatel mu ubbi leen benn serveur duñ ko sax fay waaye garantie lañ koy jox benn garantie rek benn caution garantie la ñuy déposé wala benn matériel benn oto wala benn kayitu kër tey bu ñu leen ubbilee serveur bi doomu aadama yi envoyé di envoyé ñu xool di doomu envoyé li doomu aadama yi dajale ñu waxoon ne ñu yónnee dina am ñaar ñu ci dox dépense fukki fan wala saaku ceeb wala ration weer léegi yéen bi ngeen yónnee un million bi ñëw ñoom ñu jël un million bi génnee cent mille francs woo la téléphone ne gañe nga cent mille nga yuux di tëb di dal fekk ay àq jàmbur lañ dajale jox la ko léegi ñoom jël neuf cent mille ya dóor seen poste loolu ñu ngi ciy lekk alalu nit ñi bil baafel mu nekk ay deal yoo xam ni ñoom ak société téléphonique yi ak rajo yeeg télé yi ñoom ñoo ci liggéey suba ngoon guddeeg bëccëg di gañe xaaj bu bëri ci loo xam ne ñoom amuñu ci benn frais ak ci loo xam ne naxaate la doomu aadama yi di yónnee message yi di dal ci kenn xamul nu mu toll te dañ naan la bu dee société bi tel numéro bu dee société bi tel numéro nga gis koo xam ni dina yónnee ci parce que nit ñi léegi ku ci nekk am nga ñaari piis wala ñett mm-hmm. da ngay yónnee ci bii yónnee ci bii yónnee ci bële lépp pour xër gañe lépp pour xër gañe te doo gañe dara wala kay gañe kenn lay doon te àq nit ñi lañ dajale jox ko loolu dem ba léegi mel ni carte ji dafa dagan télé boo ubbi rajo boo ubbi am na koo xam ni ma nga fa di jouer ab jeu pour di gañaloo ay doomu aadama mu nekk benn concours léegi mel ni loolu dafa dagan wala nit ñi dañ cee dëppoo ne dara nekkuti te lu xaram la nit ñi waru ci sàkka waru ci xalaat ñaari xel bokk na ci li ñuy xamee société bu yàqu ak jeune jeune yu yàqu mooy buñ demee ba télé ak rajo yi am lu ñuy tuddee ar ru'yal mubashir muy voyance directe benn waaye toog ci télé bi wala benn waaye nekk ci rajo bi da koy woo da koy woo mu wax la sa soxla te li gën a reetaan li gën a reetaanlu mooy da koy woo mu ne la sëñ bi noo tudd nga ne ko ma Masamba Masamba fooy wootee parcelle laay wootee waa bu fekkee xam na dara mën na dara boo wootee du jaar sa tur wax la fi ngay wootee wax la sa soxla waaye xam nañu sénégalais yi Masamba foo dëkk parcelle Euh, noo tudd Massamba foo dëkk parcelle ñaata at nga am mu ne vingt cinq ans léegi vingt cinq ans xam nañu vingt cinq ans jeune la léegi jeune yëpp seen problème mooy liggéey visa am poste tekki dimbali sa ñaari waajur takk soxna hmm. loolu c'est très facile yow koo soxna se mu ne déedéet mu ne waa am na ku mu fi gis ne am na koy génnal de xam nañ ne senegal xale yi koo jël am na ko muy génnal koo jël am na ku muy génnal waaw ngay génnal kooku seen rab yi naa mën naa juboo nag waaye foog nga def ay sarax def la def loola ay sarax yoo xam ne sarax yoo xam ne léeg-léeg lu impossible lay doon pour nga jaarale ko ci ñoom ñu daal di koy jëriñoo tappale yoo xam ne ci lañ nekk su bangoon ku dégg bëccëg bu fekkee jigéen a woote xam nañ jigéen ñi la leen sonal mooy bëgg a nekk seen jëkkër duñu am wujj problème mu goro Sénégal jigéen ñëpp dañu am problème mu goro samay goro ma sonal may ñu ma jàmm ñoo ma fatt bu loolu jàllee mooy borom kër gi nay nay génne koppar gi di ko jox na ko jox xaalis donc yooyu dañoo jàng mentalité sénégalais yi jàng seen mentalité bu dee mag moo wootee ab maire moo woote maire bi xam ne lan mooy problème mooy gorom jabaru doom ji jamono doomam mooy problème am beneen bi mooy doomam mi ngi ci liggéey na gën a am ci liggéey bi kooku lan la aajowoo mooy lañ dañ ko war a sangat dañ ko war a jox ay garab na def ay sarax fukki nit ak juróom mën nañu woote boo xoolee ñi nekk ay jeunes même wax ji lañ leen di wax ñi nekk ay jigéen même wax ji lañu leen di wax ñi nekk ay màgget même wax ji lañ leen di wax dara du ci changé mais nit ñi duñ ci bàyyi attention duñ ci duñ ko siiw duñ xel fekk na du xam dara waaye jàngat mentalité doomu aadama yi mbokk yi bu fekkoon ne suñu réew mi nekk ñi fiy woote woo maa mën ñi xam nañ kumpa xam nañu ñëwagul xam nañu ëllëg xam nañ mbiru doomu aadama yi ak yu koy defar waa waaw duñu wax Sénégal ban suuf ban région fan la pétrole bi nekk ci Sénégal fan moo am jama fan moo am or fan moo am phosphate barki démboo Njaay lañuy la ay ay borom xam-xam yu gëstu ci science ci leen gis ne Sénégal am na pétrole ñooñee di gisaanee ko wax fuñ ne woon xamuñu woon loolu xamuñu woon ne Sénégal am na pétrole seen xam-xam boobu lu mu leen jëriñ kon li muy wane moo ñàkk xam dara waaye ak tappale ak ak di jimbandikoo ay seytaane moo fi nekk waaye du xam dara du xam dara beneen bi li ñuy woote woone xam nañ mën nañ mën nañ defal doomu aadama yi mën nañ defal sa ëllëg mën nañ la baaxal yow boo xoolee yaa leen tane situation ñu ci bëri ñëw fi installé wu fi jël ay appartement di di fay deux cent mille ci cent cinquante mille nekk Ouest Foire ak Nord Foire ak Patte d'Oie fees ko dell ba ñu jógee Casamance di ñëw benn néeg lañ luy woon pantre néeg waaye comme ñëw nañ publicité jàllale ko ci média bi ku sant doon Sonko sax dina ne sonkoo la sant wala mu ne Kandji Gora la sant parce que sant yi ñàng yooyu léegi sénégalais yi comme dañoo gëm wàllu mystique nañ wax ne waa ji sëriñ la euh, du wolof bambara la wala joolaa la wala mandeng la wala déggul sax wolof moom déggul wolof mais li dégg wolof bi day tax doo xam dara ñaata borom xam-xam ñoo fi nekk fees della xam-xam nekki wolof waaye réerantal gi ñu di réerantal ak joué ci seen i xel ñàkk a xam dara gi ñu jëmloo leen ne xam-xamu mystique làkkat moo ko yore làkkat moo yore xam-xamu mystique waa maligee maligee nga xam ne ñoom ay làkkat lañ dégguñu sax wolof ndax Mali développé na Mali dafa développé na Mali am na lu Sénégal amul ah Burkina Faso am na lu Sénégal amul Côte noonu ñu fa nekk duñu ay duñu ay Sénégalais dégguñu wolof ay làkkat lañ waa nekk ñàkk nekk ay wolof nekk ay làkkat googu ban atu la leen indil ban privilège la leen jox dara joxu leen ko kon ñàkk dégg wolof bu fekkoon ñàkk dégg wolof koy xanaa arabe yeeg chinois yeeg euh, euh, euh, japonais yi nga xam ne seen làkk moo gën a ñàng kenn mënu ko liir kon mu am effet ci ñoom ci xam-xamu mystique kon ñu gis ne nit ñi dañ leen di fooye bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom mooy moom mooy wàllu xel dañ leen di fooye bu baax a baax loolu bokk na ci li nga xam ni fu ko gis mu tasaaroo ci ab société nañ gëm ne société boobu euh, ndaw ña nekku nañ ci ak yàqute waaye société la boo xam ne aussi société la boo xam ni euh, ndaw ñi aajowoo nañ ñu leen conscientiser woowaat leen delloowaat leen ci li nga xam ne moom mooy moom mooy seen wàllu seen wàllu diine bu fekkee ci wàllu solution yi dinañ tudd yenn solution daal di mujjee déviation yi am ci wàllu pas-pas ak ci wàllu ngëm door faa tudd yeneen solution solution yooyu bokk na ci mooy turuqul wiqaaya min al mooy muraqabatullahi fi sirri wal alan wa taxsinu bil axlaaq allati arshada arshadana ilayha alhabib annabiyu almustafa muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy bàyyi xel yàlla ci biir ak ci biti euh, jéem a protégé wu jéem a sangewu jéem a fonk di euh, jikko yi nga xam ne mooy jikko yi lislaam jàngale yonente bi alayhi salatu salaam jàngal ñu ko daal ñu ci orienté waaye jéem a jël yonente bi alayhi salatu wasalaam mu doon suñu modèle mu doon suñu royukaay ci wàllu lépp suñu wàllu diine suñu wàllu aduna parce que lépp lu luñ soxla ci aduna yonent bi alayhi salatu wasallam joxe na ci exemple joxe ci misaal luñ soxla ci wàllu diine wàllu jaamu yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam moo ci féete kaw ñëpp soxla wuñ keneen loolu moo tax jël yonent bi alayhi salatu wasalam mu doon suñu exemple doon suñu roykaay doon suñu modèle góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi jàngataat di ko yonent bi jàngataat dundam jàngataat siiraam xam personnage yonent bi alayhi salatu wasalam ba du jël kenn di ko teg ci kaw yonent bi du jël kenn mu baara ñu suñu diggante ak yonent bi ba duñ jëlee ci yonent bi déedéet ku nar a dox suñu diggante ak yonent bi dañ ko écarté yonent bi lañ amal affaire moom lañ soxla loolu bokk na ci li mën a delloo si waat ndaw ñi malheureusement ñun réew mi nekk réew mi nekk jeunesse bi tey kiñ gën a réere moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo jël ñeneen yëkkati leen ci seen ci kaw bi dañoo jël ñeneen xamal leen ñooñu bañ leen a xamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël jël ñeneen màggal leen leen funki leen teg leen ci kaw euh, kaw a kaw ba xale yi jeunes yi ñooñu lañ gën a xam yonent bi alayhi salaam boo doon def micro trottoir di wër tey ci mbedd mi di tey ci mbedd mi ci xale yi di leen laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu aju ci moom jëmmam lu ci njàngaleem lu ci sunnaam bi mu indi wallahi di nga rus di nga dugg naa ci benn oto nekk ci ab rajo dégg waa joo xam ne animateur yi dara joteelu ko diine waaye stop ak waaneeg dëgër fit dugal ko muy wax ni Fatima mi nga xam ne moo doonoon soxna yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo ne woon doo julit mu dugg ci biir suuf si xanaa nit loo ñàkk a xam loo gàtt xam-xam loo ñàkk xam dara ah sab yonent war ngaa xam ay soxnaam seen tur yàlla def na ne yonent bi ay soxnaam kenn ku tudd Fatima newu ci woon far Fatima doomam la woon te tey boo jëloon micro laaj leen ci ay nit ñoo xam ni mën nañ nekk sax ay nitu diine xam nañ seen lépp waaye ndax mën ngaa xam ay nitu diine seen lépp di réere sa yonent bi nga xam ne moo féete ñooñu kaw waaye réew mi nekk jàngalu ñu ñi yonent bi alayhi salatu salaam leneen lañ leen di jàngal bal yonent bi sax bu leen koy jàngal duñ jàngale yonent bi en tant que sunna gi mu indi mbëtt ma mu waxloo bar ba mu waxloo montagne ba ko nuyu xeer wa ko nuyu tàndar ma yëm jëmbët moo tax madina moo gën a fii la xari jaar xalimaa ko nampal amina yaayam abdoulaye baayam loolu boo jàngalee nit ban référence la ci mën a am lan la ci mën a jàngat loolu noonu xalima moo nampal yonente bi amina moo yaayam abdalaay baayam abou taalib moo ko yar waaw après point loolu bu jeexee nag lan la ci jàngat <laughs> màkka la juddoo gàddaay fa dem Medine loolu lan la ci nit ci mën a jàngat ban leçon la ci mën a tiide xanaa yonente bi indiwul sunna jàngalewul sunna waxul nu ñuy lekkee waxul nu ñuy solo waxul nu ñuy naane waxul nu ñuy nuyoo waxul nu ñuy respecté mag nu ñuy warmaa julit waxul nu ñuy jaamoo yàlla waxul lu ñu war a gëm ak lu ñu war a gëm loolu lépp yonent bi jàngale ko loolu la ñu war a xamal doomu adama yi parce que loolu la soxla ay malheureusement même suñu addis kat yeeg waaraat kat yi ci rajo yi foo leen fekk bu ñuy wax siira yonent bi alayhi salaatu salaam maamam ji Abdul Mutalib baayam ji Abu Talib yaayam ji Amina yonent bi alayhi salaam loolu taxul yàlla yónni ko yàlla yónni wu ko ngir juddoom waaye daf koo yónni ngir sunna risaala bi mu ko jox risaala bi mu ko jox message bi mu ko jox muy alxuraan geeg sunna gi mu indil peuple bi looloo tax yàlla yónni ko waaye yónni wu ko ngir juddoom yónni wu ko ngir juddoom loolu moo tax bàyyi xel euh, kon loolu bokk na ci mooy bàyyi xel yàlla bu baax a baax jël yonent bi alayhi salaatu salaam euh, jàngat jikko yi mu indi jox ñu ko ci alxuraan ak ci sunna jàngat jëmmam moom yonent bi def ko royukaay bañ koo yemale kenn ci dara ci diine bokk na ci mooy réew mi nekk foog ñu wàccee ay loi yu sévère ci doomu aadama yi nga xam ne dañuy violer éthique violer morale violer lépp loo xam ne dafa laal diine ak nite ci luy def lu bon muy njaalo naan sàngara wàllum góor jigéen wàllum siif wàllum sàcc ak yu demee ni ñoom yooyee dañ cee war a teg ay loi yu sévère yoo xam ne du am maslaha pour xeex mbon ci li nga xam ni moom mooy moom mooy suñu réew bokk na ci mooy programme yi daw ci télé ak rajo yi nañ ko changé yàlla xam nañ saa boo xëyee Sénégal nga julli fajar ba keroog ngay tëdd rajo yi boo ci jàpp quatre-vingt-dix-huit pour ci programme rajo yi musique la kañ la ñuy pour musique yi mooy heure xibaar heure xibaaru français ñu dagg musique yi te xibaaru français ba xibaaru français passé dinañ tàgge cinq minutes wax ñi dee ci réew mi suñ paree continué waat ci musique bu xibaaru wolof ñëwee ñu daggaat musique yi def xibaaru wolof su paree ñu continué ci musique yi xanaa ay émission yu mën a orienté doomu aadama yi nekku fi ay nit ñi mën a wax ak population bi wax ak nit ñi ci wàllu leen di jëriñ seen aduna ak alaxira mel ni nit ñooñu amuñu ci réew mi programme yëpp programme caaxaan bu musique yi jàllee bu musique yi jàllee mbër mi daan ñu invité ko sa waay noo def ba daan waaji sa gàllaa ji bëri na de mystiquement da ngaa pare woon mu wax suñ paree fecckat ba ñu invité ko suñ paree ci fecckat bi invité politicien bi buñ paree ci politicien bi invité gisaanekat beeg jabarkat bi ne ko waxal lan moo war a xew noo gisee làmb ji noo gisee politicien yi noo gisee diine ji bu nekk fa di wax ndax yi suñu rajo ak télé yi lu ñu war a seetaan dara programme buy baaxal jikko buy baaxal réew mi nekku fi lu yàq ak détruire non damay wax ni suñu média yi ci réew mi ay moyen de démolition lañ dañuy démolir loo tabax yàq loo waaraate loo jàngal nit ñi bu ñu xëyee yàqu ko parce que bu ñu téye woon programme musique musique yi wàññeeku cassette musique bu bees ñoo koy publicité théâtre bu bon bu bees ñoo koy publicité fecckat bu bees ñoo koy publicité njabarkat yi ñoo leen di publicité mbër yi ñoo tax nit ñi xam leen waa bu ñu téye woon seen yooyu duñ jàllale lu bon lu baax la ñuy jàllale ñi bon ñi kenn du leen xam waaye ñoom ñooy tasaaroo bon boo waxee mu nekk ci rajo yi di rëy làmmiñ ji tarara yi di wax ne buñ fi nekkutoon réew mi nangam buñ fi nekkutoon réew mi baax bañ fi nekkutoon la réew mi baaxoon ca la tane woon loolu moo tax suñu moyen de communication yi muy journal parlé presse écrite ak li nga xam ne mooy télé yi donc réew mi état bi ak population bi jël seen matukaay ñu defaat i'aadatu nazar xoolaat programme yi jàll li ñuy jàllale lépp dafa bon tuuti moo ci baax te lu baax la lu bon li moom moo ko muur moo tax mbon ñoom ñoo koy tasaare télé boo ubbi boo xëyee ay nit ñuy tëb dal rek ngay gis tëb di dal mel ni ay golo dara lu baax doo ko ci gis réew moo xam ne nag loolu rek moo fa am xale bu ci màgg ci loolu ngay màgg xale buy màgg jàpp nga ne fecc dara nekk ci parce que màgg nga kër gi nga nekk télé bi ñuy taal ay mag ngay gis ñuy pàkkar ñi di tëb ak a rajo boo euh, ubbi oto boo dugg koñ boo nekk musique ma nga fay tàkk waaw loolu bu fekkee ji nga màgg pour nga continuer ci yoon woowu c'est très chance dëgg ak mbaaxu yàlla yërmandeem ngëneelam mooy tax nga génn ci loolu gis lu baax loolu lu ma ta xel la euh, bokk na ci mën a am ñu bàyyi li nga xam ne déviation bi gën a garaaw tey ci jeunes yi déviation bi gën a garaaw nga xam ne moo jëre gën a tiit mooy déviation ci wàllu pas-pas ci wàllu ngëm bu ngeen seetloo réew mi depuis quelque moment depuis ay at sunna commencé tasaaroo nit ñi commencé gis dëgg gis ne yàgg nañ dund diine gis ñu ko leen wax yàlla gis ñu ko leen wax yonentam ñi fi nekk koo ci gis maamam lay présenté ci maamam lay wax te ñun ñi kenn ku ne am nga maam waaye soxlawuñ suñuy maam yonente bi leen soxla ak yàlla ñu gis ne nit ñi commencé nañ rupture commencé na am doomu aadama yi commencé nañ fi bàyyi li fi ne woon am lu ñuy wuti am ay nit ñoo xam dañoo jóg am yu ñuy woote jéem a récupérer waat jeunes yi su turu diine gën leen sànq te Sénégal réew mi ni ñuy dundee ni muy doxee doomu aadama yi lépp lu fi waay woote am ku la gëm man damay wax ne Sénégal lépp lu fi waay woote am ku la gëm yàlla xam na ko même boo waxoon li ngay wax nekk waxi dof dina am ay dof yu mel ni yow yenu seeni dàll dikk dikk ànd ak yow gëm la te bés bu nekk ngeen gis ko dof bu kàggoog sagom yow di woote ay dof yu mel ni moom ànd ak moom gëm ko di ko défendre te kenn ku ku wér du sikki sàkk ne kii li muy wax waxi dof la ñu wér ñëpp xam nañu kii li muy wax waxi dof la ñu tekk noppi jàpp seen jaambur wala ragal bàyyi ko moo mook dafa dafam ñu continuer wax tey boo doxoon ba yàgg ñu ma koy waxee toujours gis benn waay bu daw ñëw dugg ci baas bi di nooy di xëxët ñu ne ko lan la mu ne ci riiw bële dama faa dajeeg yàlla ci koñ bi bi may jàdd xam nga ñu ñëpp dañuy xam ne kii waxi dof lay wax parce que yàlla du bu ñuy dajeeg ci mbedd mais di nga gis benn dof bu yenu ay daalam dikk ne la bu ko weddi wóor xamoo li mu gis foog am ku la ko wax gëmal li nga gëm te bul weddi nag gëmal li nga gëm bul weddi ah, waaw boo gëmee lu baax xëy da ngay weddi lu bon waaye gëmal li nga gëm te bul weddi gëm bu àndut ak weddi wallahi da ngay sànq lu ñëw nga weddi ko baaxut loolu kenn du ko encouragé lu ñëw nga weddi rek ko kenn du ko def mais aussi lu ñëw rek nga gëm kenn du ko def fa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billah al kufru bi taaxuut wal iman billah da ngay weddi caaxaan gëm dëgg te yàlla bi muy wax aay bi kufur la jiital fa man yakfur bi taaxut da ngay kufru taaxut ba pare wa yumin billah door a gëm kon dangay ngay weddi caaxaan door a gëm dëgg kon bul def lu ñëw nga gëm mais bul def aussi lu ñëw la lu ñëw nga weddi da ngay weddi li ñu war a weddi gëm li ñu war a gëm léegi lan moo lay xamloo ne lii dañ ko war a gëm mooy alxuraan ak sunna lan moo lay xamal ne lii dañ koo war a weddi mooy alxuraan ak sunna parce que li ngay weddi nekkul ne yow yaa koy weddi pour ne da ngaa bëgg a weddi wala yaa koy weddi pour yaa koy gëm pour ne man damaa bëgg gëm lii déedéet wàllu ngëm ak wàllu weddi du sa domaine domaine yàlla la yàlla lay wax li ngay gëm moo lay wax li ngay weddi kooku du sa domaine domaine ngëm wàllu liimaan mbirum yàlla la yàlla lay wax ne gëmal li nga gëm moo lay wax weddi lii nga weddi te bu gëm selon sa bul weddi selon sa goût waaye gëmal liñ la gëm loo weddi liñ la weddi loo loolu moo tax al iman ci ñaari tànk yi lay dox al kufru bi taaxut wal iman billah weddi caaxaan gëm dëgg mais bu boo def lu ñëw nga weddi di nga weddi loo war ta weddi sooy def lu ñëw nga gëm di nga gëm loo war ta gëm di nga gëm loo war ta gëm loolu moo tax Sénégal nag ardu xisba la suuf la soo xam ni ci wàllu ngëm loo fi ji mu sax yàlla xam na ne bu ñu ragalutoon yàlla man ak yéen tey woote fi ay caaxaan tey tey tey tey tey ñu bëgg mbooloo woo na jaamu jaale ko suba ñu am ay dof yu bees ñu fekk si moo tax réew dëkk bi ku ragalul yàlla bëgg mbooloo bëgg pouvoir euh, bëgg dara da ngay woote loola neex am mbooloo parce que il faut am ñu la gëm parce que dafa am ay doomu aadama yoo xam dañoo bidd dañoo bidd nekk ñu fenn lu ñëw këf leen léegi ñoo xay di wax ni koo xam ne ngëm newul ci yow da ngaa mel ni mbuus buy naaw mbuus buy naaw mbuus buy naaw boo jëndoon ci boutique bi tey mbuus bu ñuul buy naaw daal di koy bàyyi soo ko bàyyee fu ngelaw li jëm rek fa lay jëm gis nga bu demee ba riu bële daja faak beneen ngelaw bu jëmaat yi ngelaw da koy waat yóbbu ko fële mbuus bi du am destination te du mos a àgg parce fu ngelaw jëm yóbbu ko ngelaw da ko yóbbu ba doyal bàyyi ko fa beneen ngelaw jël yóbbu ba doyal bàyyi ko beneen ngelaw jël ba yóbbu léeg-léeg mu mu mu takk ci benn cantine léeg-léeg mu takk ci benn poto léeg-léeg mu takk ci oto jaamur léeg-léeg mu takk ci koñu miiru jaamur léeg-léeg mu takk ci fiir yi ba ngelaw fekkaat ko fa jël yóbbu mais du mos a àgg destination ki gëmul dara vide lu ñëw da koy këf bu yàggee mu bàyyi ko nekkaat ci leneen nga dégg na diw mi ngi woon ci nangam léegi bàyyi na ko mi ngi waat ci leneen bu yàggee nga dégg ko bàyyi na loolu parce que waa ji dafa bidd dara newul ci moom ci ngëm lu dëgër lu koy téye mais boo jëloon mbuus mbuus nga jënd ko ci bitig bi def ci ñaari kilo ripaas takk ko teg fii est ce que ngelaw mën na ko yóbbu ngelaw du ko naaw parce que mbuus mi dafa def biddut dafa def moo tax ci def moom lu ñëw du ko këf ki nga xam ne am na liimaan gu nekk ci biiram ngëm gu wér nekkul ne lu ñëw rek moo koy këf kooku day diis dan la ko fay jële lu dëgër lay doon loolu moo tax ki nga xam ne dafa bidd lu ñëw def koy këf loolu moo tax bàyyi xel euh, moo tax ci wàllu ngëm gi wàllu pas-pas gi doomu aadama yi nekk ñoo xam ne lu ñëw daal di leen di këf bokk na nag jeunes yi sabab yi ñu leen di këf ci wàllu ngëm lu ñëw yóbbu leen ñu gëm ko ñu ngi koy woote caaxaan ak idéologie boo xam ne caaxaan laa léeg-léeg ay pensée léeg-léeg ay set lu ñëw jël leen yóbbu bokk na ca la koy waral moom mooy al jahlu bil aqidati sahih mooy buñ demee ba xale yi kenn yaru leen kenn jàngalu leen ci ngëm ñu xam lan mooy ngëm gu baax pas-pas bu weer moom mooy lan kenn yaru leen ci kenn jàngalu leen ci mus ñu dégg fuñ koy waxe kenn waaru leen ci kenn waxalu leen ko xamuñu ko su boobaa dañuy sànku ñu ñëw këf leen loolu moo tax Omar ibn Xataab dañ wax ni idma tunqadu ura alislami urwatan urwa ida nashaa fi lislami man laa yaarifu aljahiliya nee na l'islam dina dem ba yàqu bu fekkee ne am nañu judd ci l'islam te xamuñu lan mooy ceddo xamuñu lan mooy lu bon lu bon su ñooñu lu mën naa ñëw te duñ xam ne lii lu bon la bokk na ca mooy ak taasub li ma alayhi al aba wal ajdaad mooy di parparloo li fi maam yi bàyyi woon li fi maam yi bàyyi woon li fi maam yi woon ci ay tabax ci ay dëkkuwaay buñ ko jëlee ay baraak la woon léegi ñun ci ay étage lañ nekk ay R lañ nekk ci ay amo lañuy dëkk ci ay Cissé la ñuy dëkk ci HLM la ñuy dëkk alors que maam yi ci wàllu dëkkuwaay ay sàkket ak i barag lañ ci bàyyi woon boo waxee ñu naan li fi maam yi bàyyi woon yow li fi maam yi bàyyi woon ci wàllu dëkkuwaay da nga koo changé li fi maam yi bàyyi woon ci wàllu colin ay caaya lañ doon sol solo caaya waaye léegi li maam yi bàyyi woon ci wàllu solin da nga koo changé liñ bàyyi woon ci wàllu euh, dëkkin da nga koo changé léegi li maam yi bàyyi woon ci wàllu diine nga ne bu ko kenn laal te lépp li lu wàllu aduna li wàllu aduna bi da nga koo changé da nga koo changé da ngay gis waajur boo xam ni tey fi day am ñaari doom ci réew mi doom ji commerçant la nekk di jaay ci marché yi jékki-jékki am visa dem Italie nekk moodu moodu beneen doom ji daara ja la ko dugal mu jàng alxuraan génn def franco arab génn jaar ci école yi ba am bagam yàlla boursegal ko ci bourse ci réew naar yi mu dem jàngi ki demoon itali demoon yi demoon ca tubaab ya bu ñëwee daal dina papa ji léegi indaale naa xaalis kër gi nga fi bàyyi woon wala kër gi ma fi bàyyi woon comme baraak la léegi dama koy daaneel ma yëkkati ko tabax ko ñu ne ko bismillah tabaxal ki demoon ci réewu naar yi ne papa ji man it li ma fi bàyyi woon ci wàllu diine wàllu pas-pas lu bëri daf baaxu ci dama koy màbb tabaxaat ko ñu ne ko yow naar yi dañ laa yàq te kee kenn du ne ko tubaab bi dañ laa yàq doo ko dégg mukk amaana xaalis ba dafa trafic dorog kenn du ko lijjanti amaana amaana kenn du ko waaye kii moom diine ji moom boo ko indee toujours mooy problème ne ko naari dañ laa yàq yow waa kii tubaab yi ñu ko xaalis bi mu indi fu mu ko jëlee mais moom wàllu aduna gi wàllu aduna gi la ñëw tabaxaat ñu ne ko bismillah kii ñëw war a tabaxaat wàllu diine ji ñu ne ko yow naari dañ laa yàq dañ laa weddi loo mag ñi waaw kii dañ kaa kii dafa dafa ñëw weddi li nga newoon ci baraag la dëkkoon mu daaneel ko tabax fondement kii ñëwit pas-pas bi nga ko daaneel tabax fondement ak pas-pas yi nga ne ko déedéet naari dañ laa yàq wax jooju wax ju yàqu la bokk na ci moo tax yàlla wax foofu ne wa idaa qiila lahum ittabi'u maa anzala allah qaalu bal nattabi'u maa alfayna alayhi aabaana yàlla mu ne awalaw kaana aabaa'uhum laa yaqiluuna shay'an wa laa yahtaduun buñ leen ne waaye yéen ñëw leen topp li yàlla wàcc ak yonentam ñu ne déedéet ñun daal li fi maam yi bàyyi woon mu yàlla ne waaw maam yi liñ fi bàyyi woon donte yëfu dof la xel wut sax da ngeen ciy topp bokk na ca mooy ak taxlidul ama bi axzi aqwali nnas fi l aqida min gayri maarifati daliliha mooy pas-pas ki ciy wax li muy wax da cee war a wax dalil parce que wàllu ngëm dalil lañ ciy demee fekk nit dalay wax ci wàllu ngëm nga jàpp neew lu lu ñuy gëm lu ñuy fas waa ji moom lu mu wax dañ ko war a jël déedéet lim lay wax fan la ko teg bu fekkoon ne sénégalais yi kuy wax ci wàllu ngëm ak wàllu pas-pas li ngay wax da nga koy teg ci alquran bu leer li yàlla wax ni qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin da ngay indi burhan dalil gu leer naa ñi gu mel ni bëccëg ngay jox ni ñi ci li ngi leen di gëmloo doon loo wax rek mu doon say wax sax dañ kaa war a gëm donte wax ku daanu ci saret la waaye li ngay wax na doon xam-xam ci door ko gëm bu loolu amul loo wax waruñu ko topp waaye ni ñu jàppalee ni nit ki am na sañ-sañ ci wàllu diine ba lépp lu mu wax dañ ko war a topp sans ñu lijjanti ndax waa ji li mu wax dëppoon ak dalil wala dëppoon ak dalil juum na wala juumul loolu dafay sànq ay nit ci wàllu ngëm dafay sànq ay nit ci wàllu pas-pas bokk na ci moom mooy euh, alxulu fi l awliyaai wa saalihin buñ demee ba ëppal ci mag ñi buñ demee ba ëppal ci nit ñu baax ñi ba teg leen place buñ tegul yonente bi ñu ne déetawaay ñu dañ di takkal garaatu yàlla loolu fépp mu am ci ay jeunes yu mel noonu ñooñu seen pas-pas mi ngi jeng seen pas-pas ñu ngi yàqu seen ngëm mi ngi yàqu loolu vraiment mooy li nga xam ne moom moom la ñuy dund bokk na ci mooy buñ demee ba sàggane euh, jàngat alquranul karim jàng alquranul karim jàngat ko settantal ko di ko jëfe ba ni ñu jàpp ne alquran li ngi ci am rek mooy alquran ci réew mi lu ëpp li ñu ko jàppee mooy barkeelu la fexeel ba wut benn kaamil def ko sa oto boo ko ci defee dina la aar amaana doo accidenté euh, seytaane du la du la jàpp fexeel ba wut benn kaamil def ko ci kër gi ci salon bi mu doon benn meuble mu doon benn décor doo ko jàng jéem a gëstu jéem ko xam journal di nga ko lire roman bu génn di nga lire livre bu génn di nga lire article bu génn di nga lire magazine bu génn di nga lire mais alquran amoo ci wàll pour barkeelu léeg-léeg problème am nga tiit jàq ubbi ko daa di lire traduction bi wala feneen am loo ci barkeelu daal di tëjaat wala sax ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a réer balaa ngay xëy raay raay ko tekki jëbi dem loolu aaru la de li ngay raay noonu kayit la kayit la boo xam ne ñu ngi ko defaree fële ca Madina wala fii ci Tunisie wala ci Maroc mool ko daal di koy defar teg ko ci kaw ab kayit la moo tege ci kaw sa alxuraan li lay aar ci moom mooy jàng ko di ko jëfe moo lay Euh, loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy euh, mandarga yi nga xam ni war nañ ko bàyyi bu baax a baax beneen bi mooy tay lu gën a bëri ci kër yi ñuy dund kër yi ñuy dund ni ci kër yi muy parents yi amuñu yaru diine ba mën a yar xale yaru diine pak xale boo xam day judd fekk yaayam di saaga papaam di saaga kër gi ñëppay saaga xale bi il faut mu saaga mm-hmm. xale boo xam ni dafa juddu fekk papaam du julli yaayam du julli kooku bu jullee daa am chance yàlla yàllaa ko bëgg xale boo xam ni dafa judd kër gi musique lañ fiy déglu bande musique bu bees ñu jënd kasetu vidéo bu bees ñu jënd kasetu way bu bees ñu jënd kasetu théâtre bu bees ñu jënd alxuraan amu fi wàll duñ fi déglu waaraate duñ fi déglu yàlla nee na yonent bi nee na diine programme diine zéro ci kër gi xale boobu pour mu judd yàqu ñàkk ngëm-ngëm dafay yomb lool yonent bi alayhi salaam nee na xale bu judd dafa judd ci li nga xam ne mooy fitra kullu mawludin yuladu ala fitra xale bu judd dafa judd ci ngëm lu set waaye waajur yi koy yar ñooy def ñooy impacté ñooy pesé ci wàllu ngëm-ngëmu xale bi ñoo koy def yahud ñoo koy def nasaraan ñoo koy def majuus ñoo koy dévier selon ñoom niñ koy yare yar boo xam ne wute naag siraatal mustaqim yooyu bokk na ci bokk na ci aussi ci wàllu euh, pas yi koy yàq mooy la ma waxoon mooy média yoo xam ni dañoo forcé far force ne kat yi ak buxaabekat yi li ñuy tëddee maam mën te mënuñu dara jël leen def leen au premier plan kon bëgg naa ñuy wax ne maam mën ñu wax lan lañ mën ñu wax ñu vraiment lan lañ mën liñ mën lan la liñ mën lan la bu fekkee mën nañ ngalawaay nañ fexe ba Sénégal avance économiquement bu fekkee mën nañ bu fekkee mën nañ nañ fexe ba wax ñu or beeg jamaa ji fu mu nekk ci suufu ci suufu réew mi fan la nekk fan la nekk gaz bi fan la nekk pétrole bi fan la nekk bu fekkee mën nañ nañ def lu tax réew mi nekk jiitu ci réew yi mën nañ Sénégal mën indi coupe d'Afrique mën nañ mës na dara ci basket mën nañ dara lu Sénégal yeneen réew yi nga xam ni ñoom amuñu ay maamën ci ay caaxaan sax loolu ay caaxaan la ñoom jéem nañ ba amal ko seen bopp waaye réew mi nga xam ni dañ ne ay maa mën a fi nekk yu xaajul jeexul koñ boorom mu ñu affiché ko fa di leen publicité rajo di leen publicité ci kenn ku nekk di fëgg dënd samay garab samay nangam li may faj li may def ci mi di fëgg te ku yàlla may dara nga mën yàlla xam ne doo ko wane doo ko publicité salafu saalih daawuñu def loolu te yàlla defalul defalul ci xeet yi lu mu defalul ñooñu yàlla defalul ci xeet yi lu mu defalul ñooñu loolu moo tax Euh, euh, li nga xam ne mooy média yi jël nit ñooñu nga xam ni dañuy yàq pas-pas dañuy yàq ay ngëm-ngëm ñu naan sëriñ sëriñ diw sëriñ diw te duñ ay sëriñ ay njabarkat lañ buñ leen doon tuddee njabarkat doon na baax lool mu am différence diggante sëriñ ak njabarkat diggante sëriñ ak buxaabakat moo tax sëriñ yi jàngale alquran léegi dañoo war di yokk ci baat bi sëriñ daara pour ñu xam ne ñii sëriñ daara lañ ñee sëriñu leneen lañ te bu ñu waxee sëriñ daara xeliñ daal ñu xam ne kii sëriñ daara la xëy di daal ci moom ba buñ nee sëriñ daara sakal dina dal waaye léegi sëriñ rek senegal ba bi dafa pulu parce que sëriñ ci senegal cela veut dire tout lépp la tekki buñ nee sëriñ lépp ngi ci biir senegal Sénégal gisaane kat léegi sëriñ la njabarkat bi sëriñ la buxaabakat bi sëriñ la lépp sëriñ la ñëpp ci biir jàngalekat bi sëriñ la ustaas bi sëriñ la sëriñ daara ba sëriñ la moo tax léegi buñ mënoon di wax sëriñ daar sëriñ daara pour génnee ñi bokkut ñu xam ne ñooñu sëriñu leneen lañ waaye duñ sëriñ daara ndax ñoom bu ko defee ñoom daañu wax sëriñu lan lañ waaye sëriñ daara yi moom ñu xam ni ñooñu yor daara yor taalibe di jàngale alquran kon yooyu bokk na ci yi nga xam ni euh, moo ji yàq tey li nga xam ne mooy ngëm-ngëmu jeunes yu bëree bëree bëri bu fekkee ci wàllu solution yi defaraat pas-pas bi mooy arrujuu ila kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li talaqi al i'tiqad as sahih minhuma mooy delluwaat ci alxuraan ak sunna ñu gëm ni pas-pas wàllu ngëm ci alxuraan ak sunna lañ koy jëlee duñ ko jëlee feneen duñ ko jële ci ay gént duñ ko jëlee ci ay yaakaar duñ ko jëlee ci waxu nit koo xam ne waxi boppam la loolu duñ ko ci jëlee bokk na ci al inaayatu bi tadris al aqida saxiixa yittewoo di jàngale ak di tasaare pas-pas bu wér jox ko yitte di ko waxtaane di ko conférence yi di ko jàngale dugal ko ci programme njàng mi di ko jàngal xale yi depuis jardin def ko primaire def ko ci moyen def ko secondaire ba xale bi cycle yëpp muy jaar dina jàng ci wàllu ngëm ci wàllu pas-pas ci wàllu aqida loo xam dina ko protéger ci déviation yi am ci wàllu ci wàllu idéologie ak yi këfaat doomu aadama yi seen ngëm-ngëm bokk na ci mooy programme jàng téere yi jàngale téere aqida yi ci yi waaye programme di ko jàngale ci ay xalaqaat ci jàkka yi di ko jàngale ci koñ yi nit ñi ñëw di fa jëriñu di jàng xam-xam boo xam ni moo leen di may ñu am ngëm ab pas-pas bu wér waaye moo leen di protégé ba duñ gëm loo xam ne caaxaan la loo xam ne daf leen di yàqal li nga xam ne moom mooy seenu seenu gëm ñeenteel ba mooy xiyaamu duaati muslihin ay borom xam-xam ay wootekat yoo xam ne yu baax lañ woo nit ñi jóg pour jàmmaaloo caaxaan yooyu ak këkkatu pas-pas yi ak leeral seeni paay leeral caaxaan yooyu leeral tappale yi ak naxaate yi nga xam ne ñu ngi koy def doomu aadama yi ak reeral leeral réeralaate gi ñuy réeral doomu aadama yi mbokk yi li jeexale mooy ab jeunesse saa bu demee ba yàqu population la ëpp ci population ba yàqu na la ëpp ca réew moo yàqu na parce que tey réew moo dem rawatina ñun ci monde musulman dañuy wax ne jeunesse bi moom mooy li ëpp ci population bi dañ naan la entre soixante dix soixante quinze ba quatre vingt pour cent li ëpp ci réew musulman yi mooy mooy jeunesse mooy mooy jeune bi mooy xale yi mooy euh, ñu dëgër ñu ci des ay màgget lañ wala ñu ay ndaw yoo xam ne àggaguñ foofu léegi ñooñu suñ baaxee ëllëgu réew mi mën naa baax waaye dafay wax ni dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel futur ah quel peuple tu auras danaa la wax sa peuple lu muy mel ëllëg parce que sa ndawtaw yi ni ñu mel sa ëllëgu réew noonu lay mel yi ëllëg parce que ñoom ni ñu mel noonu la ñuy màggaale loolu moo tax boo amee jeunesse bu sell jeunesse bu baax sa population ëllëgam mën nañ ci am yaakaar waaye boo amee jeunesse bu fonox bu yàqu ci lu nuur lu bon ak def lu bon ci lañ nekk passeport yi bon lañ leen loo dévier leen yàq leen xamuñu seen diine sa ëllëgu réew lu jar a tiit lay doon loolu moo tax doomu adama yi war ci lu xel bu baax a baax euh, borom xam-xam mag nekk ci taabiin Ibrahim ibnu Adham moom la ñuy jeexale dañ ko mos a laaj ci Bagdad mu ñëw ci marché bi di jënd gaa ñu ne ko Ibrahim ñun de tey dañu dafa doy li ñuy dund dafa doy waar yàqute ndaw ñi yàqute dëkk bi dem nañ ba léegi dañoo seet ne réew mi kenn dootul ñaan yàlla ba yàlla ba yàlla may dafa mel ni yàlla nangootul suñuy ñaan mu ne xolu doomu aadama yi saa bu demee ba fukki mbir dee ci yàlla dootul nangu ay ñaan ba ta njëkk mu ni araftumullah walam tu addu xaqahu nit ñi xam nañ yàlla ndaw ñi xam nañ yàlla waaye respecté wuñ yàlla dëgg dëgg respect biñ ko war a jox comme ni ko yàlla waxee wa ma qadarullah xaqa qadrihi yàlla dëgg dëgg joxuñu ko dayoom bokk na ci mu ne aasimu naara walam tahrubu minhu nit ñi tey xam nañ safara yàlla bind na safara dina fa lakk ay nit waaye ragaluñ safara dawuñu safara mu ne teg ci ne araftum kitaab allahi mooy ñetteel bi walam taamalu bihi tey nit ñëpp xam nañ alquran xam nañ téere yàlla bi waaye jëfewuñ ko jëfewuñ ko mu teg ci ne tadfunuuna mawtaakum wala taatabiruun da nga ñu dem suul seen i néew ba pare bu ngeen ñëwee du ngeen ci waaru du ngeen waaru ci néew yi ngeen suul da ngeen koy fàtte mu ne istaxaltum bi uyubi xayrikum wa taraktum uyuba anfusikum da ngeen di yitte woo sikk doomu aadama yi bàyyi seeni sikk yéen loolu dafay rey xol mu teg ca ne araftumul janna walam taamalu laha xam ngeen lan mooy àjjana ak lu koy yóbbu nit waaye liggéeyu leen lan moo leen di yóbbu àjjana mu tekki ne araftum anna al mawta xaqun walam tastaiddu lahu yéen ñëpp xam ngeen ne di ngeen dee dee ngi ñëw waaye pare gu leen pour dee liggéeyu leen lu tax ngeen waajal dee mu tekki ne iddaawtum adawata shaytan wa waalaytumuhu da ngeen da ngeen a woote woote seytaane seen loon la ba pare ngeen lëkkaloog seytaane di jëf lu neex seytaane juróom-ñeenteel ba fukkeel ba mu ne Eh, juróom-ñeent mooy taakuruuna risqa allahi wala tashkuruunahu hmm. da ngeen di lekk wërsëgu yàlla bañ a sant yàlla sant leneen lu dul yàlla hmm. mu teg ca ne iddaaytum mahabbata rasul sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunanahu wa atharahu da ngeen di woote woo bëgg yonent bi fu ñu dee yonent bi ngeen di rey seen bopp te ba pare topp leen sunnaam nekku leen ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk loolu moo li ñuy dund tey faalan loolu mooy li nga xam ne ah, moom la ñuy dund kon li ñuy dénkaat ndaw ñi dénk suñu bopp mooy dellu ci alquran jàppas yu diine dellu ci li nga xam ni moom mooy euh, euh, sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam te xam ne doomu aadama bi njuumte yu mën ci def ci wàllu ndawam ci mbonteeki bàkkaar bu tuubee borom bi jéggal ko ba pare bàkkaar yàlla da koy soppi mu doon tuyaaba yàlla wax na ci jeexantalu suratul furqaan te mooy li ñuy jeexale borom bi nee na wallazina laa yad'uuna ma allahi ilahan axar jaamu yàlla yooyu muy ibaadu rahmaan ya nee na du ñu bokkaale yàlla laa yad'uuna du ñu ma allahi booleeg yàlla ilahan axar beneen yàlla mu ne walaa yaqtuluuna nafsa allati harama allahu illa bilhaq duñu rey benn bakkan duñu rey boo xam ne dafa tege ci dëgg mu ne walaa yasnuuna duñu njaalo mu ne wa man yafal dalika yalqa asama ku def loolu tabbina ci bàkkaar te kooku yudaa'af lahu alazabu yawma alqiyama yàlla di koy fulal bàkkaar yawma alqiyama wa yaxlu fihi muhaana ci safar lay sax ba faw borom bi mu ne illa man taaba duñu koo xam ne def na bàkkaar yooyu yëpp waaye tuub na wa amana mu gëm wa amila salihan mu jëf-jëf ju baax borom bi mu ne fa ulaika ñooñu yubaddilu llahu sayiatihim xasanatin yàlla dafay soppi seen bàkkaar yu bon ya ñu defoon bi ñu nekkee ndaw li ñu defoon ci yu bon ya yàlla da koy soppi bu ñu tuubee gëm soppi bàkkaar yi mu doon ay tuyaaba yubaddilu llahu sayiatihim xasanat borom bi mu ne wa kaana allahu gafuran rahima yàlla aji jéggala aji jéggalaa koon la ku mën a jéggale la waaye ku bëri yërmande la moom borom bi subhaanahu wa taala ñu koy ñaan yàlla subhaanahu wa taala yërmandeem googu mu dugal ñu ci boole ñu ci yërëm ñu boole ñu ci ñi nga xam ne ci yërmande googu ci la ñuy dugalee àjjana leneen li mooy waajur yi nañ jël seen i responsabilité fuite de responsabilité bi am ci waajur yi bàyyi seen i doom xale yi jigéen ñi ñu mel ñu leen neex heure bu leen neex génn kër gi heure bu leen neex ñibbi si matériel bu nekk ñu yor ko yor xaalis lijjantiwoo fu ñu ko jëlee xale yu góor yi nekk ci mbedd mi lu xew ñu fekkil ji ko taxawaalu fu nekk heure bu leen neex heure bu leen neex li ñibbisi bu ñu a nga ne mënalu ba leen dara kër gi nekk yaa ko moom fi ñu dëkk yaa ko moom lal bu ñuy tëdd yaa leen ko jox néeg bi yaa leen ko jox yaa leen di jox ndékki yaa leen di jox añ yaa leen di jox reer ba pare nga ne mënaloo leen dara kooku wax lu la neex la mënal nga leen dara koo yoroon ndékki la ko añ yoral ko reer di ko jox argent de poche jox ko fu muy tëdd jox ko fu mu dëkk kooku bu la neexee nga mën ci moom dara loolu soo ko téyee léegi mu normal te xale bu jigéen bi yaayam naan bu génnee taxawaalu ñibbi si bu ko neex mu ne mënuma ci moom dara bu toggee togg bi ëpp wex xorom léegi mu mën ci moom dara su ko toggulee togg li manqué xorom léegi mu mën ci moom dara su ko nee toggal mu bañ bañ a togg léegi mën ci moom dara kon kooku wax wax ju la neex la xale bu góor bi bàyyam naan mënuma ci moom dara bu ko joxoon facture courant bi ne ko fay ko dem lekk ko léegi mën ci moom dara kon wax lu leen neex la loolu moo tax nañ jëlaat seen responsabilité xam ne xale yi yàqu nañ li leen yàq mooy li nekk ci mbedd mi parce que mbedd mi moo yàqu waaye waajur bi nekk ci biir këram yor responsabilité ci ay doomam te xam ne sàmm la yàlla dana ko laaj li doon sàmm mu góor góoru ci ay doomam yar leen yaru diine képp ku am ay doom nga góorgóorlu ci ñoom yar yaru diine dugal leen fu ñuy jàngee seen diine balaa yii këfaate ci mbedd mu di leen këf parce que tey am doom responsabilité la ba pare yii këfaate ak yi yàq xale yi dafa yomb te dafa sensible te dafa bëri parce que millier bi ñu nekk bi ñuy dund milieu boobu moom moo sensible ba sa doom boo ci sonnul boo ci wasluwul ak defoo ci li ñu ci war a def ci yow diine yàlla xam ne day génn ñibbisi ci kër gi indil la pas-pas wala melokaan wala jikko boo xam ne dalay bett dalay féete kaw hada wallahu aalam sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu ah, mbokk yi yal na yàlla fayal ñu suñu mbokk bi di al oustaz Omar Diallo ci wax dëgg yàlla jàngat bi nga xam ne jàngatal nañu ko point bi ni ñu ko waxee woon ci commencement ba ah, ah, dégg nañ yaakaar naa ni liñ fi dégg leer na alhamdulilah kon yàlla ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla fay yal yàlla yokk xam-xamam yal yàlla aar ko yal yàlla guddal fanam yàlla yàlla bari ñu mel ni ñoom incha allah ñu ñaan mbokk yi ñu toog rek daanaka li des bëreetul euh, timis bi jege na kon euh, programme bi ni mu tëddee woon nii la ki nga xam ni moom la ñu sasoon ba mbir mi alhamdulilah moo taxaw ci ni nga xam ne noonu la ci war a taxawee ni ñu ko doon ñaanee alhamdulilah léegi nag li ñuy wax rek mooy Euh, fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib xam ngeen ni Sénégal yaatu na gis ngeen ni teew ci kii bi ki yàlla def nga fekke daal jotaay bi li nga fi déggee bu mu yem si yow na nga fexe sa koñ jeunes yi fa nekk wala bépp jeune boo jege wala jeune boo xam ne lii mbokk mi doon wax ci biir conférence bi gis nga ko ci moom nga dimbali ko xettali ko ba yow li nga fi dégg te muy ay solution yoo xam mën na xettali ab jeune nga jottali ko loolu dana bokk ci liy gën a yaatal mbir mi ak li koy gën a jotal léegi nag balaa ñuy yëkkati jotaay bi ni ñu ko waxee woon dañuy jox kàddu gi al imam Ousmane Pouy bi nga xamante ni moom mooy imaamu jàkka ji di masjidi tawxid incha allah mu sànni li nga xam ni moom mooy ay kàddu Euh, bu ko defee rek ñu daal di yëkkati jotaay bi balaa ñuy julli insha allah kon imam kuy tafaddal aoudu billahi min ashaytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokk yi ñu ngi sant mbokk mi nga xam ne moo doon def jotaay bi di rafetlu lool ni nga xam ne moom la ko traité di ko ñaan yàlla subhana taala yàlla may ko fan ni gudd ak wér yàlla gën a yokk xam-xam bi di wax itam ne ñi nga xam ne ñoo amal jataay bi leen di ñaan yàlla subhanahu wa na yàlla taxaw yal na yàlla sàmm ndax lii nga xam ne amal nañ ko fii tey jii insha allahu rabbi dañ ko bëgg a continuer di ko wéyal ba ila macha allah ndax yàlla def na tey jii mooy bés bu njëkk bi nga xam ne commencé nañu programme yi fas yéene ko wéyal ci gox goxu Medina yi incha allah ñu ñaan jeunes yi nga xam ne ñu ngi Medina ñu jëm ci impliqué wu te xam ne liggéeyal lislaam kenn ku ne dañ ci am sa wàllu bopp ñun ñëpp dégg nañu fi ni fii conférencier bi li mu fi wax mu xamal ni ñu ne lislaam ndaw la soxla kon ndaw ñi nañu gën a yokk góor te jéem impliqué ci li nga xam ne mooy daawal islamiya ndax wax na fi sànq ne yéen ñu fi yónni yëpp ci ndaw lañ leen yónni joxe na fa ay misaal yu bare bare bare ci ay ndaw kon ndaw yi nañu gën a yokk góorgóorlu te xam ne leneen lu dul lislaam rek caaxaan la leneen lu dul lislaam rek càngute la kon nañ ci dimbali seen bopp su ko defee réew mi mën a avancé ndax ndaw mooy tabax réew ndaw mooy tax réew avancé kon timis mi ngi waaye jot xanaa damay wax ne yàlla na yàlla boole ki nga xam ne bu ñu déggee wax dañuy jël la sa gën a rafet ñu jëfee ko yàlla na yàlla boole ci ñooñu eh, di ñaan tam ñi nga xam ne ñoo doon organiser mbir mi ñi nga xam ne ñu ngi fi incha allah ñu jàpp leen ci baas yi wàccee si siège yëpp incha allah su ko defee balaa ñu des eh, li nga xam ne mooy jotaay bi kon oustaz sàmm eh, ci gàttal di ñaax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ñoo doon def li nga xam ne mooy eh, tànt bi di leen yaa subhaana yaa jàppale yàlla dëgëral leen sàmm leen ndax lii wax dëgg yàlla am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi organisé leen lu dul lii te amuñ amuñ ci lu dul bàkkaar kon yàlla leen yàlla taxaw yàlla leen yàlla sàmm ki nga xam ne tam mooy conférencier bi yàlla na ko yàlla jàppale dëgëral ko taxaw euh, taxawaayam yokk fanam guddal ay ay cëram wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon euh, mbokk yi defe naa ci loolu la ñuy yëkkatee jotaay bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ni ko imaam waxee rek mooy euh, lii mu nekk liggéey boo xam ne day continuer incha allah yeneen borom xam-xam jaar fi di leeral ndax lii lu am solo la di ñaanal nag bu baax a baax a baax ki nga xam ni mooy oustaz bi doon def muhaadara bi mooy oustaz Omar Diallo wax dëgg yàlla mbir mi leer na yàlla na yàlla dolli yokk xam-xam bi dolli kaa sàmm doomu dolli kaa aar dolli ko bàyyi ci kanamu jullit ñi mu leen di jariñ lool lool lool lool lool wa axiru daawaana alhamdulilah wasalaamu aleykum wa rahmatullah